Bijou ndax mi nga may dégg déggu ma ayca bu nekkee Bijou déggaguma ma xamal leen ni rek plateau bi nous sommes prêts nous sommes prêts pour démarrer le programme de la soir avec du soir avec vous incha allah bu kenn wutee ne bougez surtout pas à tout de suite ñu découvrir ndoo plateau bi ayca. messenger whatsapp ak yëpp sëy bi am na ba pare dama koy sëy. ah. Asmaali sa borom kër. lan yàlla na yàlla barkeel sëy bi. waaw. may ñu nag ñu dugg ci weeru koor gu jàmm. am koor gu neex. Seydi sama taabu góor bi. Ah, kenn mënul nelaw kenn mënul nopp la ngeen nekk seen liggéey yu bon yi nii. kilifa yi wax nag yéen tamit. parce que lu bari kilifa ba ci eh, ma ma ngay saaga yow. de de fa ja mu daane ma fe fe. ay waaw mooy wax boo nekkee kër gi mu lay toggal ay ginaar. naan cuuraay li fu mu gën a neexee yow koy taaral. nga ñuy kokkali di ko teg la. dina am wala dina am. mbokki Sénégal ñoo ngi jëm ci weer wu mag muy shahru ramadan al mubarak seen émission penc réew mi ñu ko doon def 10 heures ba 11 heures nañu ko 11 heures incha allahu ba midi ñuy wéy nag di waxtaan ci sunum réew ak lu koy defar ak delloo siwaat sunu jikko yu baax yi ak valeur yi ñu yoroon mu daan defar ak a tabax société sénégalaise man seen xarit El Hadji Tall Ngol Ngol maa ngi leen di jox Euh, daje incha allahu ci koor bi lundi mardi ak mercredi 11h ba midi incha allahu rabbi jërë ngeen jëf. mbokk jullit yi mbokk téléspectateur yu 2STV saa weeru koor am ñaar. ñu xel dem muy kan tafsir Abdourahmane Gaye ak Chérif ay dara ñu war noo bégal wax nu farata wax nu wareef ci koor wax nu jaar-jaaru yonent bi mbokk yi mu doon bis bu jot mu indil nu sukkaru koor bu samdee ñu indil nu gàmm bu koritee ah bis boobu nag mooy bis bi nga xamante ni ci la nuy wax lépp loo xamante dund Seydina Muhammad la mbokk yi gàmm gu jot samedi lay doon bu samedi jotee ñu indil leen gàmm mbokk yi bisu korite bis la boo xam ne bis bu màgg la te xam ngeen ni ci leen leen di wax lépp loo xam ne jëm na ci lislaam jëm ci yontu yàlla mu amet mbokk yi tafsir abdourahman gay chérif maamin aydara ñu yàgg noo bégal mbokk yi dellu si noonu ay waay dellu si waat nañ ci weer wu neex wi waay ay waay dellu si waat nañ ci weer wu sell wi waay ay waay dellu si waat ngir won nu li nu nàmp lan la diine aw xuraan kese jamono toll. waratuñoo toog rek di xaar. te Touba lu fa war am Serigne Touba ñaan na ko. nañu fexe ba li Serigne Touba ñaan boroomam ci Touba ñu bokk ci ñu koy amal. nañu jaayante ak Serigne Touba te sax ci weer wu nekk ñu joxe 1000 francs maanaam ñaari téeméer rek par weer. huwa allasi haajara lil madina. mag ak ndaw góor ak jigéen. nañu fexe bu weer bi deeyee rek. nañu joxe 1000 francs ngir sëriñ Touba ca Touba. mu baax baax. lu mu yomb yomb balaa gën a mën a am njariñ day doon lu sax dàkk. man man man man waxoon naa leen ni waxoon naa leen ni lu lu kenn di def rek man daan ci def juróom-ñeent loolu laa ta waxu laa tàmbale woon ak ñoom. juróom-ñeent sàddex ñoo xam ne amul bëgg nañ ko teemuñu ko. maa leen maa leen maa maa maa maa leen defal. maa leen defal seen seen cër. loolu léegi yokk naa ko boobu téeméer laay def. téeméer mu rusaare ma maa leen defaale. ah ko jëpp léegi mor yëpp nañ ko dégg benn bu rek ñaari ne bu fi ñaari téeméer foo mën a In my asalaamaaleykum suñu mbokk téléspectateurs yi ñuy seetaan ci 2STV ñu ngi am mbégte di leen retrouver sur la première chaîne de télévision privée bu Sénégal ñu ngi leen di ndokkeel ci weeru koor gi ñu euh, tàmbali démb tey jii ci Sénégal muy ñaareelu bés bi nga xam ne def nañ ko ci weeru koor di weeru ngëneel weeru koor nag ñaare bu yegsee ñun ci 2STV booba def na euh, fukki at ci ren dañuy am programme boo xam ne dañ koy jagleel guddi gi ci taarix wala ci nettali ñi nga xam ne Euh, ils ont pas l'habitude de voir les programmes de la 2S ñu nga tàmbalee entre nous booba faafa la ak ña mu doon àndal ci seen émission ba euh, ba ñu demee ba ñu sentir ne lii àdduna bi ñëpp ñu ngi koy bëgg teyit mu ngi jël ampleur bu jéggi dayoo ci la ñu soppiwu doxalin tuddee ko tuute laa du si Tounkara daan ko doxal ak mbooleem euh, animateurs yi nekkoon ci kër gi daan def ay débat yoo xam ne dafa daan allier actualité ak wàllu religion ca noonu la encore plus gane see àdduna juddu ki indi tur woowu sax déjà mu ngi si plateau bi xam naa tout à l'heure on en parler waaye li ko dalee bis ni tey ba keroog weeru koor gi di jeex bu ànd ak dogalu yàlla bu waxtu wi jotatee bu leen dem fenn ñëw leen ci 2STV dinañ bokk ak yéen lépp lu jëm ci actualité ndax nam nañu suñu ay ndaw yi gën a xarañ ci kër gi jox leen moyens yi ñu war a yor ngir ñoom it ñu dem gëstul leen def ay reportage war a indi ay waxtaan yoo xam ne Euh, dina am wàllu diine waaye dina am wàllu actualité dina am politique ak lépp li nga xam ne yitteel na askanu Sénégal ngir ñu mën a toog ci seen i kër dund de moments de télévision unique dans son genre encore plus bi mooy premier numéro bi tey bu àndeek ak dogalu yàlla li ko dalee altine ba dimanche du am benn bés bu ñuy tëb am na ay surprise yoo xam ne sax au fur et à mesure ci émission bi di dem di ngeen ko découvrir te loolu yëpp ngir bëgg ñi taamu 2STV yi di ko seetaan mën ci ànd ak ngëneel suñu mbokku téléspectateurs yi émission bi dama koy ànd ak ñaar ci suñu ay jàmbaar kenn ki moom la ñuy wax Didier Rakhou keneen ki moom la ñuy wax Bijou Ngoné wala Bijou jagana damay tàmbalee par euh, donner l'honneur à la dame à la gente féminine elle est très bien comme elle a l'habitude de le faire Bijou maa ngi lay nuyu te di la laaj noo dundee ak basaab bu xonq bi <laughs> ndànk rek laa ko naanee laaj baab ndànk rek bisaab bu xonk bi bari dama ko ci tayaale ah, pour jàkkaarloo ak yow bisaab bu xonk bi daal dama cee amul dama cee amul sago rek ah bàyyi loolu <laughs> dañu nekk ci weeru koor ziar naa la maa ngi lay delloo ziar alaaji Pape Sidi maa ngi lay fay bu baax a baax dama lay def alaaji fii ba koor gi di jeex alaaji en attendant may dem màkk waaw da ci baax dem màkk sax xaj na ci ay Aïcha Pape Sidi maa ngi lay nuyu bu baax a baax di nuyu mbokku téléspectateurs yu ñuy seetaan yëpp à travers la 2STV yi euh, yéen ñi nga xamante ne yéen a toog seen biir saal ñu ngi leen di wax encore déwénati ah di leen wax ngeen baal ñu ak parce que tamit euh, Pape Sidi dund nañ ay weer yu bari yoo xamante ne ci tooñ lañu dëkk defe naa ni amul benn bis boo xamante ne bañ lañoo tooñ donc du coup dañuy ñaan jaamu yàlla yi ñu baal ñu ak ah du dëgg ñu fekkee ko ay at yu bëree bari bari comme ni ko Pape Sidi waxee fukki at ci ren 2STV di leen indil à chaque fois comme ni ma ko tàmm di waxee ci ay plateau yu original ndax nee naa leen télé bi c'est la télé qui pense à vous et vous incite à regarder la télé donc euh, du coup dañuy jekk rek euh, euh, ci di leen bégal maa ngi lay fay Pape Sidi di la nuyu bu baax a baax encore di nuyu ñi nga xamante ne ñoom la ñu àndal ci plateau bi yëpp di ko paas rax rek. Euh, xam naa ku ci nekk ci ñi ñu. ngemb am na ku ci nekk loo indi. Mhm. plateau bi nag yanj na ndax ay boroomi xam-xam ay kàngaam ci wàllu journalisme. Euh, dañu fee nekk am ñoo xam ne euh, dañuy gëstu am ñoo xam ne ci wàllu diine on a même un docteur avec nous et vous allez le découvrir dans quelques instants DJ Rakhou est avec nous raxu maa ngi lay nuyu te di la ziar yow it. maa ngi lay delloo ziar Pape Sidi. mbaa yaa ngi ci jàmm. sant yàlla bu baax a baax. noo def ak bisab bi. bisab. <laughs> bisab bu xonq. naanaguma bisab nag. <laughs> déedéet waay yaa ngi def erreur. <laughs> bisab bu xonq. non dafa bokk ci kooru Sénégal. ah bon naanaguma bisaab. parce que mm. quand tu euh, da ngay nekk célibataire bi mag quoi. ndeysaan donc pour ngay wóorut sax <laughs> waaw waaw wóorut sax feneen. donc pour l' instant amaguma bisaab <laughs> mbégte la vraiment c' est un plaisir d' être là. le plaisir est et puis euh, muy sama première corps Dakar. nekk sur la 2STV en même temps. donc bokk ak yéen émission bi ma am ci mbégte lool. di baalu àq ñëpp di bal ñëpp àq di wax. koor gi niñ ci duggee bisimilahi rahmaani rahim ñu génn ci alhamdulilahi rabil alamin yàlla jéggal ñu suñu bàkkaar nangul ñu suñu weeru koor euh, am mbégte nag encore une fois parce que vraiment ça me fait vraiment plaisir de, vo de voir euh, ma sœur là et puis très yaru <laughs> damay télécharger sama parfois. ah en tout cas là ni ma la gisee moom damay dugg Google rek comme ça vraiment ça se que ne waaw tu es tu bien en place. elle est clean voilà <laughs> et puis la beauté aussi elle est là donc. Euh, merci beaucoup mbégte vraiment. et puis yow aussi Pape Sidi dafa yokk émission bi c' est euh, tout un plaisir. c' le plaisir est partagé Rahma. et puis kii moom sama jigéen la Astou. <laughs> bienvenue aussi. dina ñëw dina ñëw ci ñoom. xam nga koo xam ne li ngay def wane lay doon wane ko moo gën. Mhm. je vais être avec la complicité de tous les caméramans ici dans la salle ñu xool. Mhm. plateau bi nu mu bindoo. c'est un plateau mais avec des plateaux dedans ku ci nekk am nga plateau boo géré mhm. te ku ci nekk ñi toog ci sa plateau mën ñoo def émission de trois heures de temps parce que def nga ay gëstu def nga jàngat def nga mhm. ay reportage yu war a mën a tax on a mobilisé même la rédaction de la télévision les musa Moussa Sène les Adjara Bonardi Cissé les Momar Jong ah le grand Moussa Moussa Sène bàyyu seex yi mhm. comme il aime à dire euh, on a aussi Astou Kane John qui avec nous Euh, pour parler de l'indépendance du Sénégal, mais pour donner la parole aussi aux professeurs ou même au docteur qui est déjà avec nous sur le plateau. xoolal bu ñu demee ci plateau bu ne bu njëkk ba mooy plateau ñoom bijou bi da ngay xool ne plateau bële c'est extrêmement riche bu ñu defee gros plan ci seen plateau bi rek foofu biir noo caméraman Bantamba day xaw a yéex mais bon si on te le montre tu sais que ça tu vas passer une bonne soirée aujourd'hui ñu dem ci plateau wu am bi nga gis ne ñee ay tàggkatu yonent bi lañ te dañoo nandee ci euh, leeru ma maam Alaaji Abdallahi Ñas maam Xalifa Ñas mhm. ak njabootuk lew na ñaseen yëpp tey ku dëkk Kuccéy mbaa nga dëkk Caameen am nga xol yéene ak mën a gën a xam li ñu am ci réew mi te muy ay ngëneel plateau bi ma toog aussi le décor je pense est campé ah ak Cheikh al Islam Alaaji Ibrahima waaw mooy diggu ñaseen waaw mooy mooy mooy définir ñaseen euh, je commencer par dire euh, Moussa wala Euh, bijou. waaw sa plateau lan mooy menu bi. sama menu tey euh, Pape Sidi euh, du lenn lu dul ndaanaan bi nga xamante ne invité nañ ko à chaque fois day baax ci weeru koor ñu di ko dalal ndax day nit koo xamante ne Sénégal ñëpp ko bëgg muy kilifa di nit ñu ñu bëgg aussi. comme ni nga ko waxee sànq xam naa ni même bu doonul euh, surprise sax waaye nit ñaa ngi koy gis ci plan bi ndax gis nañ sa yaanjaayu plateau ak ki nga xamante ne moom la ñu dalal waaye dama dama dama toog ak fii sama ndeyjoor euh, euh, ki nga xamante ne moom mooy mu sa Sène yaa ngi koy wax léegi xam naa ni boo ma ko permettre rek Moussa dañ koy bàyyi mu daal di nuyoo. Mhm. ndax Moussa mi ngi nii ma dendal ah Moussa ñu ngi lay nuyu bu baax a baax a baax. merci ngi lay téléspectateur bu 2STV di nuyu ñi nga xamante ni ñoom ñuy seetaan biir ak biti di leen baalu àq di leen baal di leen ziar te di wax ni euh, encore plus chaque année dañuy wax beneen plus boo xamante ni daf ci bokk donc du gulet Pape bi ñu ko démarré de Fafa à nos jours kon xam nañu ni am na histoire bu bari boo xamante ni quand on parle de la du Ramadan kon am na histoire bu bari boo xamante ni fa la 2S jóge ak téléspectateur. dañ dul wax rek parce que boo bëggee wax dañ naan la noppil fii. voilà waa télé ci mënti doon <laughs> alors ñun dinañ ñëwit ci loo xamante ni Bijou wax na ko sànq mu jëm ci li naan naan 26 chrono. Mhm. xaw nga ci am loo junjut sànq mais un point sur l' actualité la ñuy fas yéene def saa su nekk. ñu indil leen ci ñoo xamante ni dinañ am lu ñu daal di waxtaane te foofu lay réew mi di toll. ci kanam tuuti dinañ ci dugg gën a yaatal bu ñu bàyyee ngeen doxal tuuti. Bijou dama laa nuyu dama laa laaj sa mère ngay nuyoo. xam nga ah. yaa ngi may indil problème <laughs> may dóor fii. ah ah <laughs> euh, mais mais bon. c'est c'est bu dee man moom xam naa ni que. Euh, gan bi ñu dalal am waaw bu dee gan bi ñu dalal euh, bokk na ci ki nga xamante ne moom mooy Ahmed Khalifa Niass. waaw xam nga confrontation ñun dañuy teel teel ñun de dañu amul organigramme. tey confronté woo kenn de. na relax rek. lii metti na te compliqué waay. tey confronté woo kenn bi na relax rek téléchargé leen mu oyof rek parce que bu ñu kooroon nañ dogal lu oyof. waaw <laughs> ah, bu mu diis daal bu sérieux rek damay daaw. no du du sérieux du sérieux incha allah na relax rek. du sérieux waaye dinañ ko nit ñi seetaan balaa ñuy def leneen. léegi léegi ah, raxu ayca euh, euh, Pape Sidi comme ni nga ko waxee léegi euh, ñi ngi dalal koo xamante ne maa ngi koy wax sànq réew mi ñëpp ko bëgg muy El Hadj Ahmed Khalifa Niass Euh, euh, moom la ñuy dalal tey. docteur docteur. waaw ouais. docteur en même docteur. temps. docteur parce que tu as raison. docteur en temps mais nag comme ñun ñun suñu kilifa la te mooy suñu sëriñ wax dëgg yàlla euh, ñu ngi koy kontaanee bu baax bokk na ci aussi <coughs> thème bi nga xamante ni ñu ngi koy waxtaanee tey muy El Hadji Abdoulaye ñas di way juróom bu tedd bi donc ñu ànd ko ak ay taalibeem tey Pape Sidi Fall loolu lañ leen di indil tey. bu àndeek ak dogalu yàlla raxu. oui le sommaire de ce que tu nous as tey lan la. bàyyi écoute, euh, déjà c'est la fête de l'indépendance du Sénégal, 62 ans. Et puis euh, Moussa Sène la ñu bàyyi moo daal di ñuy euh, ndax am nañu gan bu mag muy le colonel Bass. Mhm. moom ak Adjara. Mhm. comme ça ñu bàyyi leen ñu mën a waxtaan ak sénégalais yi ndax tey bis bu am solo la. 62 ans de liberté loolu am na solo ñu mën ci waxtaan sénégalais gën a mën a xam li mu tombeek weeru koor la mais tey Sénégal waroon na xumb kër gu nekk waroon na génne drapeau national mën a manifester. loolu parce que lu am solo la. moom sa réew dafa baax. dafa baax te ci indépendance comme colonel est déjà avec nous sur voilà, le plateau. Mhm. colonel euh, Vass. Mhm. si je ne pas. balaa may wax Bass. Vass benn la. Mhm. Adjara Bonardi Cissé dama ko bëgg a nuyu nuyuwaale ñu toog ci plateau bi comme ça comme dañuy wax loo xam ne ñun ñëpp ko bokk. benn nen la te dañ koy mayonnaise. comme ça ku ci nekk boo ci bëggee joxe sa point de vue balaa colonel di tàmbale ak ak ñoom Adjara ak Moussa ak Raxu euh, Adjara j'espère que tu je vais je vais très bien di nuyu Pape di nuyu ñu nekk ci plateau bi yëpp di kontaan teew fii. mbaa yaa ngi cool. waaw ça va koor gi tàmm tàmmali na ñëpp xam nañ ni Adjara dafa ragal koor donc koor gi moom du bari wax <laughs> ah je suis un moulin mais bon bu koor bi jotee moom damay daal di tey ànd ak euh, patak organisé comme ni ko bii je di waxee mais c'est toujours un plaisir euh, ñëw bokk ak yéen plateau bi parce que comme ni ni ngeen ko waxee ay kàngam mhm. rek ñoom ñoo fi daje ñun nag su suñu wàll dinañu xuus ci actualité bi donc bu sottee rek ñun ñu dem je vais juste revenir à vous dans quelques instants accordez-moi juste quelques minutes ma nuyu Momar grand moment nga xam ne c'est un analyste un journaliste de référence quelqu'un qui est très respecté dans le monde de la politique et du journalisme grand moment ñu ngi lay nuyu di la ziar. Pape Sidi maa ngi lay fay di nuyu ñi ma fi dajal ñëpp euh, di rafetlu décor bi j'avoue que j'ai été impressionné bi ma uh-huh. duggee décor bi wallaahi euh, c'est plusieurs plateaux en un seul mm-hmm. bu euh, vous connaissez la formule consacrée. Mm -hmm. vous avez mis les petits plats dans les grands. wallaahi mais tubaab bi sax dafa juum. Mhm. parce que bii yoon y' a que des grands ma am mbégte nag surtout daje fekk euh, sama sëriñ sama kilifa sama wëllëre sama xarit koo xam ni dinaay jokkoo ak moom parce que ñu bëri dañu yaakaar ni xëy na c'est sortie publique rek lay def mais léeg-léeg ñu mel ni man nga xam ni suñu xam-xam dafa xaw a suufe du ñàkk ñu jokkoo moom. ci lu yenn mbir mu échange ci yiwit ci loolu itam ci partager ses connaissances vraiment am contenté bu ma tëgg daje feeg moom xam ni waxtaan wi tey dina riche. dina li ñu ci mën a wax daal mooy seen plateau bi dafa ala daw me. incha dina gën a dina gën a rafet elle aussi elle vient euh, imposer sa force tranquille elle répond sous le nom de Astou Kane Dione elle fait partie de ces jeunes talents des médias du Sénégal qui a beaucoup de respect. par ses, qui, est, qui est par ses pairs et par les Sénégalais il faut faire un tour sur ses réseaux pour voir comment elle est adorée ñàkk jëkkër rek ko yàq waaye Astou elle est formidable dans son travail maa ngi lay nuyu. maa ngi ci jàmm. comme olof bi di wax loo tëgg rek. rax ci këram waaw noonu la. <laughs> voilà maa ngi lay nuyu bu baax a baax Pape Sidi ravi en tout cas de partager ce plateau avec toi. Euh, di nuyu ñëpp ñi nga xamante ne ñi ngi fi plus particulièrement suñu sëriñ euh, Ahmed docteur Ahmed Khalifa Niass ñu koy ñu am toujours mbégte di partager ak moom euh, plateau surtout nag di partager ak moom ay idées yi nga xamante ne souvent dañ ciy waxtaan di ko échanger ak moom di déwénati ñëpp ñi nga xamante ne ñu ngi ñi seetaan fii ci biir réew mi ak ci bitim réew di leen wax déwénati di leen ñaanal koogu jàmm bu yàlla nangu incha allah di am mbégte bu baax a baax nekk ci plateau bi fas yéene ànd ak téléspectateurs yi ba fajar. incha allah tu sais à quel point nous sommes des amis. entre guillemets. <laughs> Astoukat Dione elle est formidable tey am ngeen client Momar vraiment je voudrais que aujourd'hui Moussa Momar tout le monde sur le plateau am ngeen client boo xam ne il a réponse presque à toutes les questions mhm. pour ne pas dire xam na lépp waaye lu bari ci réew mi fekkee na ko am na connaissance ci diine am na connaissance ci jamono ni muy doxee c'est un leader politique euh, damay faral di wax ñaare ñenn ñi comprendre ne ñii bu ñu xamoon kii ñuy toogal muy docteur Ahmed Khalifa Niass sa waajur mooy maam Khalifa doy na way maam Ahmed Khalifa Niass am naa xam-xam j'étais un conseiller stratégique de Muammar Kadhafi en géopolitique j'ai servi l'Afrique je suis là depuis l'époque de Senghor et je continue à aimer ce Sénégal à chaque fois que nit ñi soxla ko mu déplacé wu ñëw ànd ak humilité pour mën a partager yenn xam-xam yi mu am il est taquin des fois provocateur mais n'empêche que ñun dinañ xool li ñu mën a jariñoo ci moom ndax ngëneel yu mel nii bu ñu ko yàlla dénkee dañ ko war a euh, dañ ciy war a profité professeur wala docteur Ahmed Khalifa ñoos ñu ngi leen nuyu di la bàyyi nga nuyanteeg téléspectateurs yi laataa ñoo tàmbale waxtaanu indépendance su Sénégal waaw kay dinaa leen ne asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu yéen ak fu ngeen mën a nekk ci àddina bi di ko tàmbalee ci ki ubbi waxtaan wi yéen ngeen di ko jox euh, tuddee Bijou Ngoné mhm. te turam mooy la reine des saraxole <laughs> bu mag waaw ah, parce que saraxole mi ngi tekki ci soninke nit ku weex ki sere xole ci la sant xulle jógee ñoom ñoo fi njëkk a def empire woo xam ne mën nga tàmbalee Wagadugu boobu ngay demee fii ci Ndar mm-hmm. ñu tuddoon ko Wagadu mm-hmm. te mooy le pays des troupeaux après appellation berbère bi ëpp doole te mooy Gaana te Gaana li muy signifier mooy la foore ñoom ñoo njëkk falu falu nañ ci jamonoy jamonoy yonent yàlla Suleymaan Gana de Kowa Nkrumah ah Gana bu Kowa déedéet kooku turandoo la ah kooku du Gana la la Gana historique mhm. capitale bi ma nga Mauritanie mooy Kumbi Salé mi ngi den nag dëkk bu ñu wax euh, euh, kii Kifa Kifa soriwul Kifa mi ngi gën a jege ci Mali fi ñuy wax ñooro Nioro mooy ñoono origine bi arabe la mooy nuweera mooy leer bu ndaw bi léegi nag foofu ñoom nekk nañu di am ay buur ci jamono ji nga xam ne yonent yàlla Suleymaan mi ngi falu Jérusalem jamono yonent yi boobu yonent yàlla Isaa ñëwagul yonent yàlla Muusaa euh, Muhammad ñëwagul ñoom ñu am seen nguur ñooñu waruñoo làqu derrière ay bichu et tout yi nga dagana tur dañ ko yàq da gaana la tudd fii mooy gaana parce que moo nekkoon ci kaw fleuve bi ñi ngi nekk anamoo ca kaw boo tegee garab boo ca toogee sax mu yóbbu la dagana ña fa ña ko sanc bàcc li lañu sañ sant léegi dem nañu ci olof li muy joxe complexe yeneen xeet yi dem nañ ba sant ña santoon jagana sant ay ñaŋak ay yeneen i sant déedéet jagana sant bu noble la d'ailleurs l'un des de ce royaume c'est le royaume de l'or parce que buur bi bés bu muy falu ay dàllam wurus lay doon ay tubayam wurus lay doon donte lay wurusu tubay tubay wurus lu naqaree sol la metti na mbubbam wurus lay doon mbaxanaam wurus lay doon moo tax ñu di ko kayaa magaam mooy mag mi nga xam ne mooy rek kayaa kayaa wala dañ ko wax keewe mooy wurus il faut que ñu dellu ci dellu suñu cosaan mais doy na ñu naan ñu ay Pinella Prada ay William Ponty ay Victor Hugo ñoo ñëpp ay fóolu ay Valière non parce que ñàkk la ñu fayda mënta passé mhm. ñu ne ñu nos ancêtres les Gaulois ñàkk fayda la loolu hmm, dëgg la les Gaulois sont les Gaulois nous nous sommes les Ghanéens les hmm. Ouagadouiens les Maliens mmh. le royaume du Mali qui a succédé hmm. et ensuite le royaume des Touré foofu la suñu affaire yi nekk. Uh-huh. Askia Mohamed. Mm-hmm. foofu lañuy ñuy tiitaroo bu ñee nit ñi amee ñu nit am nañ. Mm-hmm. waaye nañ bàyyi fu ñu fekkee maamu jàmbur maamoo ko. am nañu leen sax ba naan mu xaari mooy seen maam. mu xaari bi ferul yonent bi six cent mille fois. bu <laughs> seen maam. dinañ ci dellu Samba ak Demba ñooy seen maam ak Kumba <laughs> ak Koli ak Daado waaye nag li am importance. mënu ma woon a ñàkk commencé fii. parce que mm-hmm. man bu may waxee nit ñi. Mm-hmm. man seen sant yi laay xool fu mu leen jëmee. Mm-hmm. nga Momar Jong mi toog. turu jong boobu mi ngi résumé mbooleem luy sculpture. jong ci boppam xam nañ ko te mooy circoncision te yonent yàlla Moussa waxoon na ne ku amul circoncision amuloo pacte ak yàlla mais même baat bi. moo la yóbbu ci jàng moo la yóbbu ci jàngu te mooy jàpp jàng ak jong ma ne jàng ak jong ak jàngu ku ko deful rek da ngaa jeng jërëjëf docteur <laughs> waaw man côté boobu laay xool ci kanam tuuti boo nee kii sant jonn mhm. da ngay daal di dellu mhm. ca may sa ca man sa borom ñaari sant la. sa maam la. waaw borom ñaari sant la mais yaayam. Mhm. Sunjata Keeta moo ko jur. Mhm. te ñoom loolu xamuñu ko. xamoo ko woon. ñu ngi ko suul fii ci Faajut faa um, um faa mooy maam ci soose. um faa jur mooy jur comme waa jur ci wolof. um faa jur mooy indi waa waa jur ci wolof. loolu mooy suñu mooy li nga xam ne duñ ko tiitaroo par que xamuñ ko te ñoo ko moom. Mm-hmm. parce que Mansowaali ba mu fi nekk il yi kel tubaab yi ñu mu ngi fee jege. Mhm. ñu ne Mansa moo fi nekk. Mhm. waaw Mansawaali Diop waaw ñetti Mansa rek moo am. Mhm. Mansa Moussa mooy ki nga xam ne ba mu jëlee or yóbbu ko Màkka prix or wàcc na ñeenti téeméeri at mënta yéeg ndax woor oram bu bëri mu jëlee jëlee ko fii nag. ci Mali déedéet ci mba Bakel. Bakel dëkk bi ñuy wax. Euh, euh, ngalam foofu la nekk dëkk bu ñuy wax ngalam fa la urus yi daan jóge ay pépite d'or fii lañ ko daan jëlee muy waaj maaka ñu di ko dajaleel ba mu nekk ay lépp ñaar téeméeri gëléem yu ñu yoo xam ne bu ci ne duy na ba diis ak urus mu door a ne ay ci mi ngi dem maaka daal li la béyk kooku mooy benn mansa bi bi ci mooy ki nga wax léegi maamu soxna si mansa wali mansa wali keneen ki mooy mansa bi sant biyaa gi te sañc Casamance ba ñu naan Casa de hmm, la Casa de Mansa hmm, hmm. la Casa de Mansa. Mansa boobu nag biyaagi la santoon. boobu joolaa yi ñëwaguñ. joolaa yi lañ jógee. réewum jullit doon daw jullit ga ñu foog ne ay jullit ñu tudd leen joolaa mooy jula. jula ci bambara yi joolaa fii dañoo jógee ci réew mooma di joow di ñëw séeréer yi foofu lañ jógee wax naa ko bii. séeréer yi seen buur mi ngi tuddoon Amakordou Diouf Famaak Famaak Famaak moomu moo rey le le roi bi nga xam ne moo doon Aboubacar ibnu Omar moo takkoon Faatumata Sàll kooku jur Njaajaan Njaay muy maami olof yi mais mauritanien la ñu ko suul ca ca Rosso Mauritanie fa ñuy wax Njurbel foofu mooy moo doon capitalu Waalo léegi nag ma na yow dama bëgg a wax ne fii kenn ñun fi ne bu ñuy wax rek ay euh, Victor Hugo wax ak ay les fables de la fontaine ak yooyu ñun am na ñu gën a garaaw loolu. wallaahi. mais pourquoi duñ ko accaparer c'est kenn fi ne li may wax sax dañu naan leen noonu arrêté boobu intéressé wuñu bi leen di intéressé ban la. Piré la parade man xaw ma Piré la parade. <laughs> professeur docteur lii moo tax euh, on comprend la frustration bi ci bi ñu bindee histoire générale du Sénégal mais dañ ciy dellu siwaat léegi ndax tey le Sénégal doon euh, bakk ay junjungam ngir. Euh, 62e anniversaire am comme l'a annoncé tout à l'heure DJ Rakhou ma bàyyi la nga démarrer ce plateau ak ñi nga ko war a seqal. alors sans transition nous allons laisser la parole à Moussa Sène et Adjara pour l'invité du colonel Bass vu que c'est l'indépendance du Sénégal c'est à vous on vous laisse faire. merci Rakhou alors euh, bala ñuy démarrer 26 chrono bi dañu bëggoon déjà jot ngeen ko brosser tuuti wax ci euh, colonel Alex Grégoire Bass. Ajara que je laisse le soin mu defar ñu une brève présentation bu ko defee ñu am ak yéen benn élément ci kanam tuuti. ngeen ko déggee euh, le colonel Alexis Grégoire Basse bi nga xamante ni moom lañ dalal tey euh, ci biir encore plus du koo xamante ni euh, ku ndaw la Sénégal ndaxte moom it bokk na ci kàngam yi nga xamante ni ràññee nañ leen ci seen liggéey donc moom ñu nommé woon ko directeur ah. de l'information et des relations publiques des armées bu DIRPA mu nekk nag en remplaçant boo xamante ni dafa ñëw wutu ki nga xamante ni moom mooy le colonel Matar Diop nga xamante ni dañ ko woo ci yeneen ci ay liggéey euh, colonel Alexis Grégoire Vass bi nga xamante ni moom lañu nar a dalal suñu waxtaan moom euh, inspecteur la woon it ci wàllum technique ci état major bu bu armée de terre euh, waaye it jot nañ ko daal di Euh, dugal ci yeneen ci ay euh, mbir yoo xamante ni mu ngi jëm ci wàllum affaire courante direction information et des relations publiques des des armées euh, donc pour justement nit ñi mën a xam kan lañ fi dalal day baax souvent ñu ñëw ci fonctions yi waaye it rôle bi nga xamante ni yaa ngi koy joué bu baax a baax ci li ngay li ngay liggéey donc tey comme nu ko Moussa Euh, daal di waxee tey dinañu waxtaanee lu jëm ci wàllum 4 avril ndax gis nañ ni que tey loolu moo nekk information bi gën a faax ci ci journée bi te it euh, le président Macky Sall jot na ci addu wax ay mbir yoo xamante ni day baax ñu teewlu ko Moussa donc euh, voilà ñu camper le décor bu fekkee mën nañ suivre élément bi également ma lancé ko rek ngeen déglu kàddu ki nga xamante ni moom mooy njiitu réew mi ci tey jii gannaaw bi ñuy célébrer li nga xamante ni moom mooy 62e anniversaire indépendance bu Sénégal njiitu réew mi Macky Sall fas yéenewul dellu ginnaaw benn yoon lu jëm rek ci trafic de bois fi nga xam ne mooy Casamance Macky Sall nga xam ne moo jiite fête indépendance ci bésukat 4 avril bi muy gën a ñaax rek larme bi ngir ñu gën a aar àll Casamance bi moom Macky Sall nee na Sénégal dootul nangu lu mel noonu. pour gën a aar àll bi nga xam ne suñu àll la te ñu war ko sàmm rawatina ci Casamance moom rek lañ fi dese ci àll ndax foo dem. ci bëj gànnaar gis nañ ne garab yépp dee nañu wala yàq nañu leen kon nag li des muy bët saalum mu Sénégal faw ñu sàmm ko ba kenn kenn du ko mën a yàq walla di ko defee ay trafic yoo xam ne Sénégal mënatul nangu loolu. ginnaaw ñaari at nga xam ne Sénégal deful lu mel ni jëm ci wàllu feetu national ci discours bi nga xam ne njiitu réew mi Macky Sall yëkkati na ko daal di rek jaajëfal l'armée bi ci taxawaayam wante itam lu jëm ci kaaraange réew mi. tey jii nag lii ñu wone donte ne génnewuñu oto yeeg machine yi di wane na tey taxawaayu Sénégal taxawaayam ci aar réew mi aar frontière réew mi. ci bépp musiba wala tuuxi doona boo xam ne ak fu mu mënti jógee ak nu mu mënti bindoo am nañu tey capacité pour neutraliser n'importe quelle menace sur la stabilité de notre pays. mu nekk 62e anniversaire bi Sénégal di fàttali rek bis bu mu moomee boppam Macky Sall di xamle rek l'armée bi yor na kaaraange bu mat sëkk mu doonoon bés bi nga xam ne Sénégal da doon màggal bés bu mu moomee boppam. donc voilà lu mu nekkoon élément bi nga xamante ni euh, Babacar euh, kii Ablaye Mal du moins defoon na ko nekk suñu naataango fii ci 2STV nekk journaliste donc Moussa ñu tàmbali waxtaan bi donc déjà colonel ñu bàyyi la nga yoon teg euh, téléspectateurs yi. bii may bii may lan la ñu wax si wala bii may ndëgg sërëx bu gën a jekk bu ma mës gis. fexe ngeen di ma lakk loo wolof alors que yéen tubaab ngeen may lakk depuis une heure de temps comme. ni ko sama sëriñ fee di waxee <laughs> yéen waa Pinet Laprade ngeen ma wan ngeen ñëw di ma dugal ci wàllu kàccu baax ma fu mu neen <laughs> léegi ngeen may ma ma nuyu ñi fi teew yëpp di leen jox seen wàccuwaay di leen euh, ñaanal kooru jàmm yéen ñëpp mais actuellement li ñu fi li ñu fi tax a ñëw pour pour euh, armée waxu waxu 4 avril la ñu la ñu a wax mhm. waaye itam euh, ça dépend si leen si li ngeen may laaj si loolu laa leen di it <laughs> mën a tontu it. Mhm. maa ngi leen di yéen laay déglu fu mu ne nii mais ni li nga wax effectivement man armée de terre laa jóge mhm. état major armée de terre ñëw fi ñuy wax DIRPA mhm. ñun ñooy tas xibaaru armée ñun ñooy ñun ñooy baatu armée suñ ko mënee oowee noonu. ba pare di di di lëkkaloo armée ak euh, yéen ñi waa waa presse. loolu mooy suñu. nekkin si si quartier bi. discours chef de l'État tey bi ñu ko déggee ci 4 avril bi euh, boo déggee dafay mel ni Sénégal tey képp ku nelaw war nga mën a yàndoor parce que mën nañu wax ni li mu jot wax ci ni wanewuñu lépp parce que prise d'arme la ñu def loolu di nga ci dellu siwaat waaye tey kàddu yi nga xamante ni moom mooy jiitu réew mu wax ko war a mën a rassurer kenn ku ci nekk yéen ñi nga xamante ni yéen ñeen a nekk niveau opérationnel bi en tant que soldat lan ngeen mën a wax ci kàddu yi nga xamante ni moom jot na ko wax après tout il est le chef euh, suprême des armées. ñu ñun suñu wax du si bari parce que dañuy tàmm wax on parle pas après le chef waaye président bi du du tey la commencé wax ñi ñi ko dégg depuis démb lañ koy lañ ko dégg. Mm-hmm. normalement le 3 ñëpp dañuy toog di xaar. l'adresse à la nation. moom depuis démb la nekk la nekk di wax te boo déggee li mu wax démb yëpp. Mm-hmm. wax na fi Lions yi. Mm-hmm. wax na fi unité. unité africaine junj na nit yi si si jàppale armée dem na ba ne mu ngi ñuy delloo njukkal nee na mu dinañu jàppale loolu kay ñëpp ñëpp dégg nañ ko tey mu ne bu kenn dagg ci benn garab loolu tam ñëpp dégg nañ ko mais du tey la ko commencé wax aussi mhm. ñun mission yu ñu nekk di doxal la depuis yàgg na quand ci wàllum daggu garab boobu noonu euh, day baax ñu taxaw fa même si bu nekkee ni sax euh, bëri na ay kàngam yoo xamante ne war nañ ci mën a mën a exprimer wu mais euh, tey bu ngeen déggee le chef de l'État amal yenn kàddu yu mel noonu yéen ngeen recevoir ko c'est-à-dire day mel ni comme ay ordre mais bu nekkee ni euh, ju tukkeewul ci seen euh, ki leen jiite euh, ci ci wàll bi ngeen nekk mais yéen bu ngeen ko déggee déjà ban. ajara boo mënee wax ci kaw comme ça mhm. beneen plateau bi ñoom ñu mën a dégg pour mën a participer. Mhm. yéen naka ngeen di recevoir kàddu yooyu nga xamante ni le chef de l'État wax na ko. waaw mais chef de l'État bi tam moom dafay wax ak ministre des forces armées. ministre des forces armées dafay wax ak général Cheikh Wade mii mii suñu kilifa. Mhm. mais général Cheikh Wade kay jox nañu ay ordres yu yàgg yoo xam ne moom tam jot na ko bu bu yàgg. Mhm. mbirum dagg bant bi du mbir bu bees du démb la commencé. Mhm. léegi am na ñoo xam ne effectivement ñoom ñoo ko yalool moom mooy waa Euh, parcs nationau waa eaux et forêt ñoo ñoo ñoom ñoo jege àll bi gàncax gi ak ñoom. Mhm. waaye nag ñun tam si suñuy mission la bokk ñu jàppale ñooñu. Mhm. et bien mën mënuñu fi nekk nit yi di dagg garab gi si àll bi loolu kay kenn du ko nangu. Mhm. waaye nag euh, du ay ordre yu bees yu ñu jot pour loolu. et puis si suñu liggéey la bokk aussi ñun Samba Boy yi lépp luy nasaxal réew mi lépp lu ñuy jëmee ginnaaw da ciy dal sa kaw. loolu mooy suñu liggéey te mën nañ ko def fu nekk. loolu loolu kay changé wul ñun suñuy mission si dara. Mhm. alors mais mon colonel tey dañu wax bu ñu nee l'armée dañu naan c'est la grande muette euh, loolu ba xam dëppoo na ak tey jii réalité yi nga xamante ni am nañ ko Sénégal. waaw bon munoo wax l'armée tam te bañ a wax ci ay Pinet-Laprade parce que ñun tam booy xool suñu suñu armée am nañ ay références yu leer am nañ suñuy résistants ñoom Lat Joor ñoom. Mhm. ñoom in ñi ngeen ñi ngeen xam ñëpp mhm. mais aussi euh, euh, ñun tam ci armée française lañ lañu lañ ñu njëkk tàggate ba mhm. léegi fu mu ne ni ñun ñaa tàggat suñu bopp ba di tàggat le les pays amis comme ni ñu koy waxee mais suñu delluwee si wàllu grande muette boobu grande muette effectivement comme ni ko sama papa fale di waxee grande muette dafa dafa dafa di loo xam ne sax c'est très impropre nañ ko wax rek mënul nekk sax Sénégal d'abord grande muette France la jóge si jamonoy troisième république troisième république mooy benn jamonoy soixante-dix ans entre mille huit cent soixante-dix ba mille neuf cent quarante yenn président yi ngeen doon dégg fii suñu rue yu bari tout ay Félix Faure Sadi Carnot ñooñu ñoo fi nekkoon jamono yi mm-hmm. mais amoon nañu ay enrôlés ñoo xam ne dañ leen dugal quartier par force ñoo ñu ñooñu ñoo ñu dañ doon dingat dañ doon comme ni ñu koy waxee ci suñu soldaay yi déquincé ça veut dire buggu ñoon def dara loo wax ju xëpp si suuf ak kaani ñoo ñu nag il fale nga tëj leen il fale nga tere leen wax waaw ñooñu nag dañ dem nag perdre ay droits civiques or ñun même même depuis 2006 boo boo xoolee la la loi 2006 20 du 30 juin 2006. ça veut dire ñun depuis 2007 boo xoolee. biir quartier nit yaa ngi voté policier yaa ngi voté douanier yaa ngi voté donc loolu nous ces droits civiques là d'ailleurs ñun les droits que nous que nous avons librement consenti de de perdre sax ci boppam mm-hmm. même même vote léegi ñu ngi voté mm-hmm. mais fii y a y a y a y a ce qu'on appelle bu ñu duggee si mbirum yoon rek am na am na lu ñuy wax euh, baïonnette intelligente mm-hmm. maanaam man su ma la waxee benn benn ordre boo xam ne waroo ko def nga def ko te xam te xam ne waroo ko def yow yaa dugal sa bopp waaw loolu kay bu amee mënatuñu wax ay waxu grande miette mhm. te man mi DIRPA bi ma nekk premier janvier laa fa ñëw bind gum naa signé gum naa huit co communiqué yoo xam ne bien sûr général bi xam na lu may wax mhm. quatorze émissions armée nation publié nañ fi déjà benn revue bu def ay quatre-vingts pages ba ba pare chaque jour ñu wax ak ay chaque jour ñu. ñu téléphoné kon kay ani grande merde boobu ñu wax. wala kenn yéen journalistes yi da ngeen bëgg ñàkk seen liggéey su fekkee ñun ñoo commencé di di wax tous les jours tam. <laughs> mais lu ñu waxagum 1er janvier ba léegi waxagum nañ lépp 50 wala 60 fois ay Twitter 40 tweet depuis le 1 janvier. Mhm. donc on communique peut-être forme de communication bi moo leen neexul peut-être da te loolu itam je crois que yéen dootu leen liggéey. Mhm. mais est-ce que sax seen avantage la ngeen ngeen communiqué de trop parce que tamit euh, xam nañ ni que euh, armée dafa am nu muy doxalee. Mhm. Euh, waaye it y a des yoo xamante ni tey jii nii baax na si ngeen préserver ko est-ce que communication boobu noonu c'est des choses yoo xam ne da ngeen koy filtrer tamit wàllum ci manière même bi ngeen di communiquer aussi je pense que baax na ngeen leeral. ñu un ah, waaw loolu nag la ñuy wax information sensible loolu la ñuy wax information foofu nag ngeen uutee yéen journalistes yi. am na ay journalistes yoo xam ne du ma ne du ñu ay patriotes mais ñoom dañuy xam li ñu xam wala ñu yaakaar ne am na lu ñu xam mais dañuy dem vérifier parce que journaliste il faut nga vérifier balaa ngay wax wala nga yaakaar ne am na loo xam nga laaj laajte d'abord est-ce que su ma ko waxee du ma tas réew mi. Mhm. am na yeneen journaliste tam yoo xam ne lu ñu dégg keneen di ko wax sax ñu tas ko donc foofu ngeen ngeen uutewee. Mhm. waaye nag dëgg-dëgg le cœur même de de l'information ñun opération yi nekk en juge bu nekk tribunal nag naka ngay gisee procureur bi enquête yi pare guñu ay kii sax nit yi commencé di di wax loolu kay mënul nekk. Mhm. opération en cours ñun mënuñu si wax dara. léegi nag journaliste yi bëgg ngeen ñu yeewu chaque suba ñu ne fii lañ toll fii lañ jëm ah loolu kay kon kon kay nañ aj gànnaay yi ñu ñu ñu commencé nekk journaliste ñun tam. Mhm. si suñu wàllu liggéey boobu du lépp lañ si mën a wax. léegi saa yu ñu waree wax nag dañuy wax parce que gis nga suñ communiqué day gàtt lu ñu wax c'est factuel ça veut dire c'est kenn du si teggi dara lu ma la wax daaw boo ñëwaatee fii dans dix ans mu ngi foofu parce que c'est des faits mën nga ko vérifier amuñu benn intérêt inventé amuñu benn intérêt yokk mhm. lu ñu wax moom duñ ko teg parce que loolu moo nekk justement seen thème bi nga xamante ni jël ngeen ko en gis nañu force de défense et de sécurité ngeen inscrire ko dans l'éducation 2020 ñu dem ci force de défense et de sécurité ngeen indi ko ci biir euh, gestion des pandémies et catastrophes tey ñu gis ren force de défense et de sécurité mais ngeen inscrire ko sur la résilience le président de la république qui parle de programme de résilience parce que xam nañ fi ñu jóge ak loolu c'est adapté wala nan ngeen concevoir thème indépendance bi nga xamante ni mooy dënnu. yow yow yow naa la ragal ah parce que parce que ni nga suivre actualité bi sax dafa graw et effectivement thème yooyu boo xoolee depuis journée des forces armées maanaam mois de novembre même thème la ñu waxoon comme ñu ne journée des ñu ñëw ne. force de défense et de sécurité maanaam li ñu waxoon foofu ci pandémie moom moo continuer nii effectivement mais depuis 2019 boo xoolee Covid 19 mi ngi nii naxasal na nasaxal na sooy xool àddina bi yëpp la la laal. Mm-hmm. waaye nag ñun tam suñu thèmes yi dañ koy yokk dañ koy euh, pousse ci actualité bi ay ay gëstu dit yi dañuy gëstu ñu bari nag dañuy bind ñu bari dañuy xalaat. waaye résilience bi nii boo xoolee ñun suñu journal bu ñu bind di si gis ay sociologue docteur Malick Gaye madame Innocence Ntap kooku tam beneen kàngam mi ngi noonu ci haut conseil du dialogue social commissaire euh, Wahab euh, Sall ah, nga xam ne mooy ressources humaines police colonel Jean Bertrand Bocandé bu bu bu administration pénitentiaire maanaam euh, lu ñuy wax résilience su ma ko mënee tënk ci wolof te da sax naa jéem mooy ndëgër lay ñu ngi ma doon reetaan sànq fële mais loolu la ndëgër laay maanaam dinaa lemu mais du ma du ma damm damay damm damay dellu si si si fànn yu gën a gaaw léegi léegi ñun résilience boobu du si armée bi la commencé boo xoolee depuis si kër yi la commencé depuis si bi ñu tàggatee depuis si bi ñu nekkee xale ba bi ñuy ñëw si suñu entraînement léegi nag toutes ces forces de défense et de sécurité là dañu war a booloo nekk benn loolu la ñuy wax interopérabilité te boo xoolee sànq maa ngi dégg douanier di wax ay mille plus de mille milliards yu ñu dugal fii ci Sénégal policiers yi béy nañ seen waar fële waa eaux et forêt mais fu mu ne nii ñëpp ñëpp ñoo booloo ci ci thème boobu. Mhm. même résilience climatique am na parce que fu mu ne nii le climat est en train de de changer donc résilience daal suñu xoolee wax du ma wax Pinel Pradhan mais naa wax Boris Cyrulnik parce que kooku tam benn kàngam la benn benn psychanalyste français 1937 rek la judd kon mi ngi dund ba léegi. mais moom moo nekk moom mooy c'est la capacité de de réussir de vouloir se développer et de résister malgré l'adversité donc moom mooy lu ñuy dund bës bu bés bu nekk moom la ñuy dund. ci adversité boobu sax ñu gis nii le président Macky Sall était très très préoccupé par euh, frontières également ba génnee ay dispositif pour annoncer ay chiffres yoo xamante ni euh, pour gën a dëgëral euh, suñu frontières yi tey yéen ban regard ngeen am ci ci ci frontières yi tey état bu ñu doon defal état des lieux tey aujourd'hui ce qu'on peut retenir. je je je vous j'avais copié une petite citation du du chef détat si ordre du jour numéro un la maanaam kaddu yu mu njëkk wax bi mu jëlee armée bi le 1er avril 2021 mu ne j'ai l'ambition de mettre à la disposition de, de notre pays une armée résolument ancrée dans son cœur de métier et en mesure de faire face fermement avec succès aux différentes formes de vulnérabilité loolu koy jeex na boo sànq rek dama doon xool hymne national bi encore boo xoolee couple yëpp am na si ay défense fii ay les poussins les milans ay les frontières le bantou l'arabe est un frère maanaam loolu yëpp waxu résilience la maanaam nañ nekk benn nañ nañ aar suñu bopp dinañ ñu dóor waa garaawul dinañ fay dinañ jógaat dinañ dellu si ainsi de suite loolu yëpp boo xoolee yëfu résilience la donc xanaa kay Léopold Sédar Senghor du 2021 la la la bind hymne boobu Herbert Pepper tëgg donc ñun depuis bi Sénégal juddoo kay ñu ngi si biir résilience boobu te loolu mooy continuer président bi du fi la doon wax il faut il faudra vivre avec donc Covid 19 bi kay fexe nañ ba vivre avec. Mhm. ñenn ñi sax duñu sol masque fu mu ne nii mais peut-être ñenn ñi ñu ngi vacciné wu. mais menaces euh, réelles yi les menaces elles sont diffuses parce que ci frontières yi du armée rek moo fa nekk police mi ngi fa douane mi ngi fa gendarmerie mi ngi fa ainsi de suite mais am na menaces yu ñuy séntu yu ñu si dëkk yi ñu wër amagu fi ñenn ñi ñu ngi naan dina am ak du am mais ñun leen lañ mën tàggat suñu bopp ak jéem a gëstu jéem a xool jéem a. fexe ba aar suñu bopp waaye nag bu ñëwee même bu ñëwee naka la ñuy def pour jógaat pour bondé suñu mënee wax bonde ndëgëralaay boobu mooy loolu fi nga nekkoon boo demee nga dellu si dellu si si même si même point c'est important. artillerie bi dañu gis ni sànq ñu ngi koy wax euh, sëriñ bi nga koy wax lu jëm ci wàllu tropicalisé li nga xamante ni moom mooy armement bi ñu am parce que da ngay gis char de combat yoo xamante ni day romb. ñu def ci Kajoor wala ñu def ci ay appellation yoo xamante ni daf ñuy renvoyer à ce que suñu patrimoine li mhm. nga xamante ni moom la moom alors loolu est-ce que dafa am lu muy def ci notion de jàmbaar bi nga xamante ni moom lañ leen di tuddee ñi nga xamante ni ñoo nekk ci armée wala lan lay expliquer yooyu notion ak li nga xamante ni moom la ñu delloo ñu ci biir armée bi waaw waaw loolu kay loolu kay c'est le cœur même de notre métier c'est-à-dire dañ lay tàggat mais yoo tam il faut nga am ay ay références soo xoolee même promotion yi ñu tuddee fii ENOA école de santé euh, même même euh, école yi yi am Sénégal soo gisee promotion bu ñu tuddee en général kenn ku dee ci xare la déjà kon ay référence la am na ay ñun am nañ ay référence am nañ ay maam am nañ am nañ ay résistants yu ñu fi mën a jël bien sûr du ñu jël suñu oto tam tuddee ko ay ay ay ay turu. nasaraan ñu ñu waaw waxuma sax nasaraan mais mën na nekk sax. américain ak keneen su may wax moom mooy ñun am nañ référence yu doy yoo xam ne même si oto yooyu ngay wax am na tam ay turu village yenn village yoo xam ne vraiment mythique yoo xam ne ça compte beaucoup pour l'armée et même pour la population donc yooyu ay référence la day yokk njàmbaar day day yokk fit te tam loolu dañ ko soxla ñun pour jëm kanam te ñu gis également que ni euh, c'est vrai que forme bi changé na puisque euh, tey bi ñuy def défilé bi et tout ça fii lañ ko defee euh, place de l'indépendance gis nañ ni que également changé nañ forme bi ak comme ni nga daan gisee majorité di am euh, démonstration de force bi di am ak yooyu noonu amul ren mais euh, tey naka ngeen di euh, jàngatee euh, ndaw ñi ni ñuy xoolee armée bi parce que man je me rappelle bi ma nekkee ndaw sama waaju bu góor daf ma doon yóbbu may seetaani li nga xamante ni moom mooy défilé bi te daf ma daan expliqué ne ma lii moom mooy li ñuy wax indépendance Adja kon pour yow mag nga ni waaw man ah, léegi nag làkk léegi ma làkk nag 40 ans tamit bon effectivement tey naka ngeen gisee loolu défilé bi format réduit la parce que président sax wax na ko sànq format réduit la pourquoi parce que BRT bi bus rapide transit am na yoon yoo xam ne ñun lu ñuy wax itinéraire de dégagement dañ naroon dem si défilé bi Charles de Gaulle benn instant il faut nga jàdd sa sa ndeyjoor wala sa càmm waaw mais fan ngay jàdd su fekkee foofu travaux yi dañu ki donc dafa naroon compliqué yàq défilé bi parce que day kase allure bi donc loolu yëpp moo tax ñu ne sobriété format réduit parce que l'indépendance tam tuutiwul tuutiwaay boobu waaye euh, pour li ñu bëggoon def mënoon na nekk regardu jeunes yi ngay wax parce que ces mêmes jeunes là ñoom ngay dem nga entraîner ci école yi foofu da ngay gis ñëppay bëgg bokk école primaire koo ne demal taxaw fee mënoo défilé nga dugalaat ko ci biir défilé bi mhm. xale yooyu ngay wax man xale boobu laa woon man quand Thiaroye laa juddoo gis ñoom marigot di tëb para mhm. dama bëggoon nekk para mais après tëb naa para mais ma nekk para mais mais ku nekk da nga am ay ay genre idée peut-être yow journaliste gisoon nga Pamela nekk Pamela Ewing nag si Dallas wala xaw ma lan nga ne eh ma sol daalu coquette ku nekk am na lu ko dugal si benn si benn métier. Pamela waaw. mais mais léegi nag mais waaw waaw ñoom moom jamono novela ah, mais mais mais ñun actuellement euh, euh, regardu xale yooyu ngay wax ñun ñooy xale yi mhm. parce que c'est l'armée du pays lu tax ñuy wax fête de l'armée de la jeunesse l'armée booy xool si si seen si suñu effectif nii mais ñun ñun ñun d'abord notre caractéristique c'est que on est jeune vous voulez pas avoir une armée soo xoolee armée ci boppam ñi si ëpp dañu ay ndaw lañ d'abord mais léegi jeune yooyu ngay wax mais suñuy rakk rek lañ wala suñuy doom yu yu ndaw donc ñooñu seen regard mënul changer ñi si bëgg a nekk yow sa doom peut-être taaja bon moom day day day bëgg a sol tenue hmm. militaire loolu nag bu 4 avril ñëwee dafay dafay yokk parce que ñoom tam dañuy gis militaire yi nii peut-être ñooñu si àll bi lañ nekkoon léegi nga leen di gis civil bi loolu koy daf leen di gën ñaar si dugg armée dinañ yaatal léegi ndaxte ñoom raxu ñu ngi fa ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen mm-hmm. mais juste la forme euh, revue des bi muy def mm-hmm. c'est une forme standard wala ci yeneen i réew am na changement bu ci am parce que président saa yu yegsee rek dañuy gis mu daal di yéeg ci oto bi def revue des troupes effectivement revue revue des troupes lu normal la mooy nit yi dañu taxaw foofu depuis fajar léegi nag président bi day ñëw xool nit yi nu ñu taxawee lu ñu sol même si ba si tenue yi ba si dàll yi effect wax nga lu am importance si yeneen réew am na revue sax mais revue boo xam ne nit yi dañuy jaar si biir rangée yi jaar si kanam jaar si digg bi jaar si gannaaw bu moo gën a compliqué mais boo gisee mu yegg oto c'est parce que revue bi tam dafa yàgg bu naroon dox loolu yëpp dem dem pour ñëwaat peut-être défilé boobu dina def 4 heures fu mu mënee def comme tey une heure et quart donc mais mais revue effectivement dëkk bu nekk ak revue mais xoolal bu président bi demee ba fu mu nar a toujours bu bu gestoo day gis ki commandant des troupes bi tourné nuyu ko foofu nag sa troupe su taxawul daf la naan foofu sa ñuy jeguñ foofu la la koy wax hmm. waaye nag ba léegi macha allah comme waxu ko koy jàmmal am na solo lool <laughs> colonel Vasse aussi maa ngi dégg ngay wax Kantiaroy euh, sous parents ça me rappelle quand j'étais plus jeune je voyais ça aussi j'aimais bien. <laughs> ça me rappelle de beaux souvenirs aussi. alors Pape Sidi. Mhm. waxtaan bi am na solo je pense que ku ci nekk aussi mën nga wax. man wolof bi rek moom si métti wolof bi ñu ma lakkaloo par force. mais mais mais colonel nag <laughs> daf ma piégé daf ma piégé. ku ci nekk aussi <laughs> mën nga wax sa xalaat ah surtout Astou ak euh, suñu grand Momar. Euh, colonel waxtaan ak moom am na solo. fekkee am ngeen ay questions yoo xam ne aussi bëgg ngeen ñu gën ko yaatal ci moom. je pense qu'il est là pour ça aussi. Mm-hmm. d' amoon naa benn question bu may posé colonel parce que gis nañ ni dañu nekk quand même. Mm-hmm. ci benn état boo xamante ni ci crise casamançaise bi gis nañ dernièrement opération yu bëri na trop. Euh, ba nga xamante ni sax euh, gis nañ ni yu ci bëri ci ay bërëb yi nga xam ni Salif Sadio ak basam yi ñu ngi fa woon daal dinañ koy dindi. Euh, tey bu ñu doon def bilan bi je sais pas nag à parcours lay nekk wala dañ naan bi lii mooy bilan bi mais en tout cas tey bu ñu doon taxaw ci bilan bi euh, lan nga ñu ciy wax ci bilan opération yoo xam ñu ngi koy mënee depuis un certain également euh, bu ñuy wax ci li nga xam ne moom moo di coupe abusif abusif de bois suñu njiitum réew wax na ko tout à l'heure donc ci allocution lan mooy rapport bi exactement crise casamançaise ak coupe de bois boobu nga xam ne dañ koy dégg souvent foofu bon crise casamançaise aussi wax naa ko fii de dès le début so so yow yow yow li nga wax sax si ay ay base ay Salif Sadio ça veut dire que kon liir nga communiqué boobu kon kay duma si sax sori moom moom mooy base yooyu base yooyu toute façon mais colonel man lire ma ah. non liiroo ko man naa la koy yónnee. sori sori ci non ñëpp du ma monopoliser débat bi mais mais loolu tam duñ si ñëwaat il faut ngeen comprendre que c'est une opération qui est en cours et c'est dans la durée ça veut dire ñëw ñu fa tey pour dem suba et puis crise casamançaise nga wax ba crise casamançaise commencé wul 2021 82 la commencé donc donc loolu vraiment je crois que crise casamançaise kese sax mën nañ si wax euh, toute la journée parce que aussi du du ñun rek état bi la euh, population yi la yow la man la donc donc vraiment li ñu si jot a wax si communiqué yi euh, au moment opportun toujours di ngeen gis benn communiqué bu génn wax leen lii moo fi xew fii lañ jëm mais loolu du du lu ñuy mën a teggi parce que parce que sama bi bii passé leer na la nekk changé wul bu changé rek balaa nga may laaj mën naa la jox beneen communiqué boobu kay bul si sax am xel ñaar. Mm-hmm. par rapport à cette coupe abusive de bois. le rapport parce que gis nañ ko le président a euh, insisté euh, ci loolu euh, lan mooy rapport parce que on a quand même besoin de savoir on parle de crise casamançaise de l'autre côté on parle de coupe abusive de bois lan mooy rapport bi a bien ah, Comment se fait-il que la Gambie soit le plus grand pays exportateur de bois mhm. de l'Afrique de l'Ouest C'est quand même paradoxal, en quelque sorte. Gambie taxut koo toll noonu bant bi ñuy exporté ba ñu nekk les champions de l'Afrique de l'Ouest fan la jógee est-ce que jógeewul Médina Yoro Foulah mbaa mu jógee ci suufu Casamance qu'est-ce qui pourrait expliquer ces genres de situations je réconforte les dires de Astou je je je réitère ma réponse c'est-à-dire euh, am na ay kàngam yu nekk Sénégal ñoom Ali Aïdar affaire yi. Mhm. ñooñu boo bëggee wax waxu coupe du bois. je crois que luñ la si wax rek mën nga ko jàppe Kamil. waaw eaux et forêt. te te eaux et moom c'est sûr que dinañ la wax tant de tonnes tant de camions tant de hangars tant de kii mais mais ñun de toute façon notre notre ñu ngi koy def c'est nos missions régaliennes on continuera euh, di di leen def tam ci ci ci. di ñaan nag mu nekk ci lu mucc ayib mais mais moom kay dara duñu ko tere def tam loolu ne vous en faites même mm-hmm. mm-hmm. Mm-hmm. xam nga armée lu doy waar la. amul benn soldat boo xam ne boo xëyee ni sa maa ngi dem que wóor na leen da ñibbisi amul. déedéet booy xam ne bés bu ne. day ne tey ma dee te réew mee tax te soldaar bu ñu daggee tànkam kenn paaletu bu fekk tànk boobu réew mee tax mu ñàkk ko te kenn mënu koo jëndal tànk bii tax ñuy wax tànk bët noonu mbagg noonu leneen lu dul noonu noonu Sénégal yi yëpp militaires yi mooy ñi nga xam ne seen appartenance à la nation mooy bi gën a wóor tappalewuñ fenuñ wagajaanewuñ kay dee rek mbaa kaay gaañu te am na njëriñ ndax tey Sénégal décret bu président mosoon si signé depuis ñaar fukki at ak sax lu ko depuis décembre euh, mille neuf cent du du quatre-vingt-deux depuis décembre mille waaw loolu ça fait plus que ça. waaw vingt non exactement donc. vingt ans c'est deux mille. ba léegi amul benn président bu mës a signé boo xam ne dafa jël l'ensemble di territoire te bu su taxaloon ak armée bi loolu mooy continuer ba suñuy doom doon ko ci ñun. Sénégal bu doon dafa manqué tànk joxaat nañ ko tànk bu manqué woon loxo joxaat nañ ko loxo te waxuñu. loolu mooy la grande mère. Mhm. maanaam li ñuy juróo ci ñi ci des mooy dañuy taxaw ne li ñu def nañ ko wax te kenn moo ko même dire pas waxam bariwul mhm. ndax jëfi kilomètre boo ko exprimer ci ay centimètres dëgg-dëgg ku noppi nga waaye lii ñu fi def politicien bu defoon un pour cent bi feek téeméeri at dañ koy woy di la woy say maam naan li nga fi def jaloor yi jaloor yi mhm. ñii ñooy borom jaloor yi dul bàkku mhm. très man de damay wax ne mhm. loolu armée bi moom mooy ma bu ñu waxee armée nation wax nañu dëgg parce que ab armée bi nation bi rek la fi nekkal absolument duñ laajte nan la général bi sant nii colonel bi nu mu sant nii lan mooy diineem nii lan mooy tarixaam am na sëriñ ak amul sëriñ am ci néegu jox la juddoom ci taax ko comme moo mooy chef rek mooy chef mhm. ñoom rek ñoo fi am règle boo xam ne dañ koy respecté de A à Z ji nga tey jii su fekkee ne euh, maanaam dañoo war a départ six heures pile bu kenn taxawee ne nañ départ six heures moins cinq kenn du ko faale 6 heures c'est 6 heures avant l'heure c'est pas l'heure après l'heure c'est pas l'heure waaye ñii ñoo jar a mm-hmm. kon nag su fekkee ne loolu am na te mënuñoo waxal seen bopp te ñun ñu doon xeexal xanaa duñ ko ñàkkee jom ba duñ leen sant man day sama kurus toujours armée bi mi ngi ci ne mm-hmm. macha allah musal nañu ci koo xam ne benn bandu quelques dizaines de personne la ay nit di ci commerce euh, fonds politique yi ñuy loger à la présidence ay milliards di ci jóge très bien. ay milliards di ci jógee di dem ci ay poos ñuy tabax ay taax kaw ñu naa la ñooñu dañoo garaaw da leen di dégg boo ñëwee doo leen gis waaye bi ci ñiy desee waaye dékkat waxatuñ ko boobu wax pare na sa appartient déjà à l'histoire jërë ngeen jëf armée jërëjëf colonel. jërëjëf jot lañu say généraux ak say colonel ak say lieutenant colonel ak say capitaine ak say commandant ak say lieutenant ak say sous-lieutenant yëpp ba ci. ba ci simple soldat bi ñu leen di gërëm ñu ngi leen di sant diine jaa ngi leen di gërëm mu ngi leen di sant amu leen morom jërë ngeen jëf. très bien jërëjëf. jërëjëf jërëjëf Niass. mon grand Momar. waaw li ma ciy dolli rek mooy armée Sénégal moom war na leen am na lu ñu leen di kañe. c'est-à-dire nous avons une armée républicaine. Euh, loolu quand ñu tane ko ay réew yu bëri. ci Afrique ñu sekkal dig dëggal. Mhm. Euh, armée boo xam ni. seen yoon du nekk ci mbirum politique daawuñu ci dugub ganu ganu sax ci jamonoy Ablaye Wade la ñu voté benn loi bu leen di permettre ñuy voté. Mhm. mais lu jiitu loolu ñoom politique mosuñu ci laale. Euh, beneen li nga xam ne aussi atu Sénégal la te ñu war koo kañoo mooy dañu am armée boo xam ni xeet yàq ko mbirum xeet. déedéet parce que nag duñ joxoñ benn dëkk duñ tudd benn dëkk. mais am na dëkk yu ñu wër yoo xam ni. Mhm. boo demee seen armée benn ci xeet yi. te souvent sax souvent day fekk mu nekk xeetu borom réew ma mooy ëpp ci armée bi. ba nga xam ni dafa am nu muy taxawee nu gallu goose mu teg suñu armée ni mu taxawee. Euh, ginnaaw ñaari seetlu yooyu ma def euh, dafa am rek laaj ba mu bëggoon laaj moo kolonel parce que dañu gis ci thème bi ñu def ko force de défense et de sécurité et résilience nationale. ma yaakaar ni xëy na loolu buñ ko defee li mu wund mooy dolloowaat gëddam concept armée nation bi nga xam ni dafa mës a feeñ ci Sénégal ba nga xam ni boo demee ci mbirum défense de la l'intégrité territoriale di nga fa fekk armée boo demee ci mbirum santé di nga fa fekk armée bokk na ci sax opito yi gën mucc ayib yi gën a mucc ayib militaires ya ko yore gis nañ fi itam mhm. yenn jumtukaay yu mel ni batolo Joola wala yu mel noonu armée bee ko yore seen taxawaay fës ci wàll yépp est-ce que thème bi ñu indi tey dafa bëgg fëddaliwaat loolu gën a taxaw wanewaat seen taxawaay ci fànn yooyu yëpp ba nga xam ni fànn yooyu yëpp nga xam ni dafa euh, euh, yitteel askan wi ngeen gën ci wane seen taxawaay. colonel concept armée nation. colonel balaa ngay répondre rek dafa am ñoo xam ne ñu ñuy seetaan via les réseaux sociaux Facebook ak YouTube dañu am ndaw boo xam ne il au niveau de la régie maa ngi leen di ñaan yéen sénégalais ngeen wax lan ngeen xalaat. ci armée bu Sénégal njàmbarte gi ngërëm yeeg sant yi mën ngeen ko bind on va les lire dans quelques instants juste après la réponse de mon colonel vous pouvez répondre à la question de Momar s'il vous plaît. waaw moom li mu wax kay moom kay moom la ñoom seen gars yi ñoom Bekkaay Mbaye loolu la ñuy tegal sa baaram foofu yow wax nga wax bi yëpp sax jaruloo tontu mais mais effectivement c'est le cœur du problème mais c'est une affaire aussi de capacité soo benn oto oto euh, gouverneur Saliou Samb maa ngi koy nuyuwaale sax bu ma fekk ci benn faro conkisil ngiroo bu bon la ngiroo woon foofu mais benn camion bi ma ko xëccee même gars dañ ma doon reetaan sax ak ay camion mango yi taxoon foofu te mënuñu woon xëcc oto mais bi ma ko xëccee mu génn gars yi dañu doon yëngal seen bopp oto bu ndaw bi ma ne non lii oto militaire la mm-hmm. c'est même le camion boobu ak camion militaire yi bokkuñu capacité bokkuñu roue de xoolal roue yeew ak roue cross yi donc même c'est même les capacités militaires c'est ce qu'on appelle des capacités rustiques maanaam matériel yu simple yu am yu am doole camion camion yu mën a dem peut-être fu yeneen camion yi mënul dem yu mën a daw si suuf si ak affaire yaa ngi wax santé effectivement déployé nañ fi hôpital de niveau 2 Touba mm-hmm. à on a des unités de boulangerie mobile yoo xam ne mën nañ sax defar pain 1000 pain 2000 pain tout de suite léegi en quelque quelque temps yu gën a gaaw bokk euh, boulangerie civile par exemple mais ñun ñun tam si tissu national boobu lañ bokk suñ fi bëggoon compter fii bouchon de xën ñaata kilomètre de piste yu jeunes defar ñaata pont demal si Tabanta ba léegi kii ñi ko defar nekk nañ généraux ba jël retraite pont boobu mu ngi foofu daanagul ba léegi peut-être yeneen pont tam daanu ne donc donc liggéey bi liggéey bi ñuy wax loolu national wi parce que la résilience c'est c'est holistique la résilience mooy loo xam ne ñëpp dañ si am wal ñëpp waa kër yi waa kër ga waa mbedd bi waa koñ bi comme ni ñu koy waxee ak ak ak force de défense et sécurité yëpp mais si si seen biir ñëpp dañ si am wàll boo xoolee même dañuy tàggatu dañuy dañuy entraînement euh, boo gisee daaw jëkk rek manœuvre Falémé mhm. manœuvre Falémé plus de 3000 hommes plus de 400 véhicules 423 véhicules 80 engins blindés ça ça veut dire que même moyens yi police gendarmerie lépp armée benn instant dinañ soxla boole yëpp ak civil yi booloo doole pour pour pour pour doon benn même même mooy na ñu continuer même mooy na ñu ñu continuer ba ba ba ba mu ba ñu egg fi ñu jëm mhm. donc loolu mooy résilience c'est-à-dire la capacité là de de rebondir mhm. mais nag bon c'est dans la durée il y a une durabilité qui qui existe mhm. te loolu tam euh, c'est c'est li nga wax yëpp daal wax dëgg yàlla c'est le cœur du du problème lenn rek laa ciy dolli parce que defe naa image bi ba léegi sénégalais yi ñu koy fàttaliku bi nga xamee nii tiwo kër Mamar Sarr yàqu na ba indi jafe-jafe ndox ci réew mi président de la bi mu jógee di fa dem ab tenue militaire la solo sol trait yi boobu lañu ñu mës a gis président Macky Sall mu sol trait yi kooku nag dafa am lu muy signifier dafay signifier ni yéen armée yéen a nekkal askan wi ci wàll yu bëri ba nga xam ne président de la république bu jógee sol tenue trait yi dem di lijjanti mbirum ndox donc da leen delloo rek ci seen concept d'armée nation mhm. gën leen ko firndeel te loolu itam defe naa moom la thème bi wane ren gis nga péril acridien no oui péril acridien <laughs> mais militaire yi ñu ngi foon militaire dafa jàng xeex ak criquet mais dinañ ko jàng parce que loolu tam guerre la te boo xoolee ni ñuy defee guerre noonu lañ demee xeexee criquet yi te peut-être criquet yooyu mënoon nañ ñuy indil safaan boo xam ne mooy mooy loolu mais tam mooy li ngay wax rek ba léegi si si armée la mais tam du armée kese du ñu ne force de défense et sécurité. Mhm. police gendarmerie douane ñoo ñëpp ñu ngi si biir ak o et forêt parcs nationaux service d'hygiène tout ça là ñooñu ñooy force de défense et de. ni ñu ko benn benn la nii. Mhm. tax na nit ñi xam. lan moo wund te mu ren bi. Mhm. résilience nationale na si. mais est-ce que ça vous arrive parfois colonel de contester. ñu ñu ñu wax ngeen ne déedéet. kan mooy ngeen armée kay amul ngeen. Hmm. ah armée amul ngeen. man de ku ñëw di di di wax di kii la ma lay njëkk wax mooy armee amul ngeen da ngay wax kee man man nee naa man xam waaw mais mais mais mënoo ne ngeen ngeen kay mooy groupe group kay égal rébellion rébellion kay égal mutinerie loolu kay mënul nekk armée amul amul groupe groupe armée amul syndicat loolu kay kenn ñaanu ko sax même par écrit ngeen toog ne xam ne lii d'accord leen ci ngeen def ko non euh, nit itam dañu fa ne armée benn mur la nii déedéet euh, balaa ngay joxe benn ordre da koy gëstu balaa ngay def benn opération da nga koy planifier doo tëb tey rek nga dem def benn opération de ay gëstu la ay xalaat su ma defee lii lii laa si jëlee su ma def jëlee lii lii laa si am ainsi de suite donc benn chaine la on ne fait rien au hasard donc effectivement même su ma amee réclamation waaw man li ñu ma laajtee da nga koy def ba pare léegi nag su su ma waxee bugguma ko def parce que waaw ma def ko mu may ah dinañ xam ne man wax naa ko kay abus de mën na am même même si si école mais nag armée du du ordre bu ñu la jox nga nga def déedéet moom laa doon wax sànq mooy baïonnette intelligente un ordre manifestement illégal kay ko kenn du ko kenn du ko def waaye nag un ordre que tu penses illégal nga war ko def defoo ko ay bu légale lan moo siy fekk du mi ngi noonu donc donc doo doo tëb rek di bañ ay orde noonu wala naan ñun ñun gars yi déedéet armée amul ñun man mm-hmm. Mm-hmm. ah benn nit benn benn décision. Mm-hmm. voilà beaucoup. am na leneen aussi lu ma bëgg a insister rek mm-hmm. surtout pour ñi nga xam ne. ñoo ñu gën a Pape Sidi question Ahmed. Eh, non surtout si ñi nga xam ne ñoo ñu mais il fallait ñi nga xam ne ñoo ñu gën a féete ndaw ci métier bi. Euh, il est bon de rappeler à leur attention. que bu ñuy wax ci armée ñu bañ a wax l'armée sénégalaise parce que boo nekkee ci ab réew di bind ci armée l'armée da nga ko war a approprier on doit dire l'armée nationale mhm. on peut comprendre qu'un étranger écrivant sur l'armée sénégalaise puisse dire l'armée sénégalaise mhm. mais pas nous mhm. donc autant l'armée s'approprie des problèmes des populations il faut que aussi les populations s'approprie leur armée. Donc, notre armée est une armée nationale et c'est en toute fierté qu'on exige que c'est notre armée nationale et il faut le dire dans nos écrits et dans nos bon c'est que comme aussi j'en profite j'en profite pour jeter un petit message parce que dans les sites là du lu ñu bind rek mooy dëgg parce am na ay sites yoo xam ne bitim réew lañ nekk de du ma fi tudd ay réew mais bitim réew lañ nekk ça veut dire ñooñu lu ñu bind est-ce que dañ ko bind pour jëmale ñu kanam déedéet waaw léegi yow boo nekkee fii nga jël ko nga tasaat ko nii boo yëpp ko bon est-ce que renseignement boobu d'abord sax est-ce que c'est même vrai hmm. non seulement c'est ñu sax jëmalewul kanam moo tax doo gis ñuy génn fii di teesante ak di tontu. parce que du ko jar donc ñi koy relayer itam nañu am cette responsabilité là boo xam ne ñu ngi xool bu baax lan la publier wala sax am nañ si xel ñaar ñuy dem vérifier journaliste kay <laughs> day vérifier. waaw ma ni la en tout pour ñu jullit. l'islam armée moo ko créé. Badar 14 Ramadan foofu. yonent bi ci moom moo doon général bi moo doon ki njëkk a xeex. 313. Mhm. na jamono kenn nit mënul nekk ilimaan te demuloo xeexi ba pare ba ñëw yor say liggéey door a jiite nit ñi kuy daw xeex mos la mën a bokk ci lislaam dara moo tax xawma ma armée bi nuñ koy dugalee waaye nañ fexe bay entraîner ay ñu ñuy wax nitu diine ñu ñuy imaam. yu demee noonu ne serait que pour seen jëmm parce que am na foo xam ne bu ñu fa tolloo ci xeex premier ki war a mobiliser nit ñi. <laughs> mooy imaam bi mooy ni dem leen xeexe ngir réew mi. <laughs> papa loolu gëmu ko de imaam yi fi ñi fi ah nekk. ah kay ah déedéet. tubaab yi déedéet loolu ci baat boobu ci ñaam gi la jógee. <laughs> ñoom ñoo ne bu fi kenn yooyu ay kacc la ay fen la. dama ne bu ñuy mobiliser imaam moo war a njëkk a teeru. te moo njëkk a wax ne nañ dem yi ngir suñu bopp ngir suñuy doom ngir suñu kër ngir suñuy réew mm-hmm. feeg ñi ngi ne xeex bi imaam bi bokk ci sëriñ bi bokk ci foofu ay kàcc lañu fay def <laughs> de ah kay parce que même armée française dafa am ay imaam am ay prêtre am ay rabbin yoo xam ne bu ñu jullee bu ñu dee ñoo leen di jullee ñoo leen di déglu bu ñu wax seen dénkaane moom la ñuy ñaanal ñaan yi am na fu ne ñaan yu dogg li ku dégg yooyu yëpp da cee am te ñoom dañu nekk ca kanam di xeex amoon na fi parce que Seydou Nourou Tall nekkoon na l'aumônier des armées fii lu tax ay dooma ki sëtam nuñ ko nekk dañoo war a nekk les aumôniers de notre armée je le réclame haut et fort à acquis de droit jàll leen nag léegi. jërëjëf euh, docteur Ahmed Khalifa Niass. armée Sénégal armée nationale comme l'a dit bien Moma. Euh, une armée de référence. si àdduna bi ak si mhm. Sénégal gii ñu dëkk. ak réew yi ñu wër. Mhm. mosuñoo dégg ñaawteef jóge ci armée bi dugg ci civil yi. Mhm. mosuñoo dégg luy gàkk-gàkk bàyyeekoo ci suñu armée sakk la ndam la tey boo déggee am na ko doon wax euh, je pense c'est Momar. amul waaso amul xeet y a plus de séeréer et de joola dans l'armée du Sénégal si je ne me trompe pas parce que koo ci laaj diw la euh, ageen ak jamboon daal mooy seen maam waaw jigéen ñaa ngi ci biir et puis ñu ngi def liggéey bu am solo lan la Sénégalais yi xalaat ci armée bi mhm. ils sont en train de dire leur opinion via les pages YouTube ak Facebook okay. on va voir mon colonel <coughs> regardez l'avis de des Sénégalais mhm. sur euh, le digital Habib MVP et de l'autre côté Régie est-ce que vous allez bien Habib est-ce que mën nañu xam lan la sénégalais yi wax ci armée nationale. très bien de belles réactions ci li nga xamante ne moom mooy ñaari plateformes yi ñuy utiliser di YouTube ak euh, Facebook n'est-ce pas déjà sur Facebook euh, ki nga xamante ne moom mooy euh, Baba Diop nee na nous sommes très fiers de nos hommes détenus ay jàmbaar la ñu El Hadj Dame Ndaw nee na moom merci la 2STV pour cette émission encore plus qui veut tout dire dans l'actualité plus d'informations en temps réel le concept est adéquat alors ki nga xamante ne moom mooy Pape Aliou Ngom nee na l'augmentation des salaires pour nos forces de l'ordre c'est très important Pape Sidi Fall xam naa loolu lu ko itteel la te mat nañu waxtaanee ko itam Mouhamed Taïb Sarr nee na merci à vous la 2STV bravo l'armée nationale min ngalaa njop di moo doon Euh, moom sama mbokk pël la Ndiaga Niang nee na vive le Sénégal vive notre armée nationale grâce à notre armée nous sommes au moins fiers d'être sénégalais alors ñu ñëw ci li nga xamante ne moom mooy euh, YouTube n'est-ce pas Adijatou Diallo xam naa moom Gambie la ñuy seetaane fi mu nekk nee na moom Ramadan Karim my beautiful family euh, ki nga xamante ne itam moom mooy Moussa Danfa la seule télé qui nous fait rêver la télé autrement ak réaction yu bëri maanaam ñu ngi fii BM 221 moom nee na dikkati nañ yooyu dikkati nañu 2STV xam naa bu ci kanamee daañu amaat yeneen euh, réaction yu gën a pertinent ci biir émission bi lee n'est-ce pas euh, déjà un cumul de plus d'un millier de visionnages sur YouTube ak Facebook Pape Sidi à vous merci beaucoup MVP Habib yéen ñi ñuy seetaan ci biir réew mi ak ci bitim réew n'hésitez pas à poser des questions n'hésitez pas à contribuer n'hésitez pas à apporter votre euh, question si vous en avez bien entendu ndax booba ak léegi ci page wu Astou Dione sama page page u Bibu Ngoné mhm. en direct ñu ngi gis nit ñi ñu ngi réagir ku ci nekk ci page bi mu nekk euh, les commentaires mënoo dajale lépp donc wax ko donc du coup dañ koy def petit à petit goutte à goutte lépp ñëw Khady Ndiaye elle était sur le plateau bi may nuyu ñëpp mhm. mais bon euh, booba dama ko doon xaaraale en attendant mon colonel balaa ngay dem di nga ma wax réaction wu sénégalais yi noo ko gisee

waaw dañuy bàyyi ndikku mhm. waaw ma leen di téye ci en nga leen di captiver euh, chauffer plateau bi quoi. ko doon ci kanam di nga ñu jox ay astuces. Mhm. ay informations yu utile ci koor gi. bien sûr ci ah. kanam euh, dinaa dinaa leen jox encore une fois la jour bi. ak heure xëdd bi ak euh, heure ndog bi. Mhm. mooy rupture bi ak début de jeune bi. ak température bi muy def. waa température Ndakaaru wala Njaaréem ak Kaolack. parce que ñun dañoo bëgg Njaaréem bàyyi ko gëstu la <laughs> la suba <laughs> Njaaréem <laughs> dëkk la ci moom. naa ko naa ko gëstu ma nuyuwaale ah Pape tu m'as emporté voilà mu nuyuwaale. waaw waaye nag Fall nga baal ma de Fall. Eh. dëgg dëgg yéen anticorps ngeen. Eh. parce que yàlla dafa araamal or guddi. te yéen a ngi ñu oorloo jox leen ñu lekk ah. jox leen ñu naan déedéet déedéet ah. wala Alaaji Njaay wala Marème déedéet duñu wàcc <laughs> loolu non non non non moom wax na. père loolu doon Alaaji Ndiaye xaaral ma woo Alaaji Ndiaye. waaw xaaral ma woo Alaaji Ndiaye. dañoo lekk ba bër set. Walfadjri dañ doon noos gis naa la lekk di xaaral ma woo Alaaji Ndiaye. waaye ko war bëccëg bi nga ba ko war la guddi. Euh, euh, non non non nañu wàccee seen. waa ah xaaral ma wax la euh, loolu dootul am xam naa tey li ñuy door en tout cas bu ngeen man bu ngeen ma wootee weeru koor du ma ñëw. waaye espace bële si ginnaaw pour traiteurs yi la. <laughs> loolu dootul am ay traiteurs ñu concours indi. non non waa invité tey bi moom xam nga tey yow. yow moom sañ nañ laa def loolu nee na bëgg ma indaale sama doom loolu mooy indaale sa ndogu. mais affaire yaa ngi ñëw sax affaire yaa ngi ñëw. non affaire yaa ngi ñëw affaire yaa ngi ñëw merveille et plaisir bàyyi eh, ma micro ñoom mu nekk fériel la waaye espace. man ndox mi may naan maa ko indaale. déedéet kay waaw naa la war a war a dugg professeur docteur yow tamit âge. Ah, man dama teel a sama kër yu ne ma ndox mu mën a. bisu. non ndox a ngi nii nag wax na dëgg. déedéet ndox mi ah? ndox day ñaq ndox day ñàkk wuy ma docteur docteur ñu ngi lay indil xarira nga commencé tooyal sa put en attendant les événements mais nag mais nag mais nag ñu ngi indil xarira Pape Sidi dañuy def benn point rapidement waaw parce que moom mooy suñu invité VIP waaw normalement heure bi waroon na ko fekk ñu làq ko quelque part loolu moom du yoon mais dañ bëggoon mu ñëw toog fekkee waxtaan bi mais je t'explique affaire bi mi ngi ñëw papa lekk bi yow sëriñ boo xoolee Kaaba gi diggu Kaaba gi. bu <laughs> ñuy julli dañuy teg lekk ak naan. dëgg la waaw lekk ak naan bu julli dina yàq émission indi leen bool dof yi ñu commencé. ñu yàq julli dina yàq émission dañu a xaar kon na ñëw. day set waaw bu yàq julli. dañu ngi ñëw xaar ñu ngi ñëw ñu ñëw léegi. très bien ah, Ana Omar na ñëw géral ma Adja mi parce que je l'aime bien. très bien et comme elle vient d'arriver elle va continuer avec nous le le l'affaire. donc yaa ngi doon wax léegi am solo euh, Khadija Euh, ñu bàyyi la nga terminer donc pour les informations que vous allez donner aujourd'hui oui tout à l'heure euh, je vais donner le nafila du jour euh, on va parler un peu météo voilà heure de coupure heure de rupture dinañ dinañ ci ñëw macha allah joxe quelques aussi pour euh, comment bien digérer après ndogu bi parce que. bu ñu jox astuce boobu bëgguñoo digérer dañoo bëgg mu des ak ñun ba suba. amee ah, nag baab nag. Euh, wóor digérer baax day ànd ak kii santé nan lañ koy waxee bijou. non Moussa wér gu yaram wér gu yaram. Mhm. bien être mais ndox bu ñàkk de doo si jëlee wér gu yaram. <laughs> Mmh. <laughs> mon colonel colonel on va terminer avec vous par rapport à la réaction des Sénégalais qui vous ont en grande partie remercié mais il y a une question qui a. qui a qui a été donné par un des internautes. Momar mhm. mm -hmm. si je ne me trompe pas il a parlé de question de salaire. Euh, ndax plaidoyer la bu ngeen bëgg bokk ak ñun wala loolu aussi c'est la grande muette qui va jouer son rôle. bon c'est ce que je disais tout à l'heure c'est-à-dire aussi xam nga man du ma wax gaa yi gaa yi fay kon yow du grande muette yow grande miette ngay wax. Euh, miette miette miette waaw waaw waaye mais man man man maay ñëw fii ma wax sama salaire comme ça ma génn sama jabar ne du loolu lañ lay fay déedéet du ma ko def du ma ko def. te te te bokkuma ci benn syndicat. à peu près ay ñaata rek. ay ñaata rek. non mais. suñu génnee naal ko wax suñu génnee naal ko léegi léegi actuellement quand mhm. euh, comme comme ni comme ni mu doon wax sànq euh, sénégalais yi waaw mhm. les la les les question des sénégalais ñun dañ si génnewul suñu bopp di. Mhm. c'est c'est ces mêmes jeunes là ñun si lañ bokk. ñii c'est la ñii c'est une génération Z c'est une génération 2.0 léegi sax dépassé nañ ñu 4.0 lañ nekk. Mhm. ça veut dire que ñoom seen question yi ça prouve que tam boo xoolee ñoom si réseaux sociaux yi mhm. la ñuy gën a. yëngu la ñuy gën a gëstu. aussi bu ñu bu ñu gëm lépp lu ñuy wax si réseaux so réseaux sociaux yi loolu rek laa leen di ñaan man. Mhm. léegi ñoom euh, li ñuy wax nii daf ñuy yokk jom daf ñuy ñaax ñu gën a jëm kanam ñu gën ñu gën a yokk si si li ñu doon yëngu en tout cas du du si changer dara mais mais vraiment pour pour revenir à cette question de de salaire c'est pas demain la veille je crois que ngeen di gis fii ay ay marche de militaire wala kii et puis quand même commandement bi mi mi ngi siy dox ay jéego. Mhm. nit yi euh, seen condition militaire mi ngi changé chef bu ñëw rek lu muy njëkk teg mooy day changer conditions yi changer matériel yi ainsi de mhm. suite donc ñuy ñu ngi ñi ngi jëm kanam côté boobu te vraiment defe naa nit yi dinañ si mujjee gis seen bopp mais léegi quand même euh, euh quant à quant aux vraiment euh, ne croyez pas tout ce que vous lisez essayez de d'en savoir plus et venez à la DIRPA appelez-nous directement la, la DIRPA a ouvert ses portes et puis man lu ma si jaaxal sax musuma gis ku ñu tëj buntu camp foofu am na kaso de buntu jal job boobu mhm. mais nit dañ ñëw ba dugg sa mbiru kon kay man xaw ma lan mooy seen limite fu mu nen mhm. ragal ragal ñàkk xam. bon du ñu dóoree aussi amuñu livre sax bu yu bari. balaa ñu koy bàyyi mu dem. waaw ndax après dañuy daal di euh, waxtaan ak suñu papa. docteur euh, Khalifa Ahmed Khalifa Niass. noos bi ñëw na man li ma bëggoon. Euh, da nga bañ ma fekkee ndogu bi quoi. ah non non mais vous êtes problème. <laughs> ndogu VIP bi man maa si gannaaw kilifa bi. même même bu ñu la libéré. ci gannaaw am na loo mën a xewlu. incha ah, allah waaw nag ñun dañ koo bañ libéré. Eh, voilà ah, ah, ñoom dañu bañ moo boobu. kon même bu la buñ la yeewee. loolu nous sommes dans le grandi wax rendu rendu assez fooy. Mhm. maanaam dañ dañ laa dàq ah waaw. en fait li ma bëggoon l'utilisation des mots. merci beaucoup mon colonel. li ma bëggoon en fait euh, ñu waxtaanee ko rapidement bu ko defee ñu mën la bàyyi nga dem. ban message nga war a mën a jox jeunesse sénégalaise bi en tant que soldat en tant que colonel. ban message nga war a jox xale yi nga xam ne jamono ji ñu toog di ñu seetaan. ma ma ma ma dellu si lu ma waxoon xale yooyu man dem see génnewul sama bopp. mais trente il trent a ans man seen place laa nekkoon. di grève fii Cheikh Anta Diop. di grève doonu moon sànnante ay ay kii nag mais maa daxoon maa daxoon daw grenade lacrymogène fii. mais si daw yooyu après ma dem daw yi dem def ay pompe dem def ay abdominaux après ma dugg armée au lieu au lieu ma dem continuer di. di grève gis nga fi benn capitaine gendarmerie di canaliser benn foule bi mu waxee jaar-jaaram étudiants yi dañ toog di ko xool mais après capitaine gendarmerie la léegi mu ngi ni kàngam la mais mais ku nekk am na lu boire bu muy béy fii su dee lu jëmale réew mi kanam rek amul ndaw boo xam ne bokk si déedéet du du wolof njaay loolu lay wax borom borom karaw bu ñuul kay <laughs> dara jobbu ko mhm. kooku kay tant que ñoom seen karaw mu ngi ñuul lu leen neex nañ ko nañ ko def mais tant que mi ngi jëmalee réew mi kanam yàq bi jaru ko bañ a bañ a jàppale armée du armée de seen bopp la ñuy bañ a jàppale parce que bu ñuy wax armée tam nañ jàpp police gendarmerie douane eaux et forêt service d'hygiène loolu yëpp ay concours la doo fa duggee noonu ci yaama neex mhm. da ngay da ngay jàng nga dem foofu bëgguloo jàng ba léegi boo bëggee dem foofu di nga xam ne heure jàng jot na donc ñoom nañ jàng mhm. nañ jàng ba pare après nag léegi si lu ñu mën a liggéey ñu dem liggéey foofu pour jàppale seen réew te loolu ñëpp mën nañ ko te loolu ñëpp war nañ ko def suñu bëggee réew mi yëpp ànd jëm kanam man message boobu laa am pour nos jeunes frères mooy nañu jàng mhm. nañu jàng bu fekkee ne jàpp nañu sa définition moo bi nga xam ne moom lañ mën a téye foofu mooy nañu jàng nañ jàng très bien même ñuy bëgg na am armée nañ jàng très bien parce que boo bëggee avancer si armée bi tam di nga jàng kon kay jàng leen ba fi ngeen mën a yam rek après boo leen bëggee dugg armée di ngeen continuer jàng de. parfait ba fu jàng bu dul mhm. allah. wax dëgg naa waxtaan bi neexoon na. mon mhm. colonel on a été très ravi de vous recevoir. Euh, que tout le monde est très ébahi de Sénégal 62e mhm. année. c'est ça Moussa Sène ak euh, Adjara comment vous l'avez appelé tout kan validé yi ngay wax non pas validé yi. waay waay waay colonel waay. mooy ki à chaque fois. bon mais en tout cas j'en profite quand même aussi pour vous souhaiter à tous un un bon mois béni de Ramadan. et puis au nom du du général euh, chef d'état-major général des armées le général de corps d'armée Cheikh Wade et des forces armées Sidiki Kaba et bien sûr du chef suprême des armées. Euh, nous on est derrière vous donc soyez derrière nous pour qu'on soit derrière vous. très bien c'est tout ce que je merci beaucoup merci de dérération bi mu ngi waaj a tàmbali. waaw bi ñu commencé waaw. <laughs> maam El Hadj Abdallahi Niass maam xalifa ñas mhm. moom lañu dénkoon daara ja maam El Hadj Abdallahi Niass nag ci taarixu Sénégal dafa am ay page yu taaru yu mu ci bind. bëgg nañu waxtaanee waxtaanu diine ngir gën a xam kilifa gi toog waaye juram mooy kan ak lan la liggéey ci lislaam ndax lew na ñaseen dañ ko jox. dafa joxe xaalis ñu jaay ko ko ñu ne ko lew na la doom yooyu yëpp on va en parler si Sénégal fi mu toll politique dafa yëngu wet gu nekk mu baaje ñu fa et ça occupe le devant de la scène ce qui explique la présence de Momar et de Astou Moussa et ajara ñoo ñu gën a xam xëy na wàllu wow yeneen yi nga xam ne suñu kilifa gi daf ñu koy jàngal mu jëm ci li ñu war a xam ci suñu wàllu diine li ñu jàngal yenn polémique yi parce que bijou s'occupe très bien de ce de ce de cette chose euh, elle vient d'arriver sur le plateau ma nuyu ko balaa ñuy tàmbali waxtaanu VIP bi. Mhm. mooy Adja Diallo la ravissante l'exceptionnelle la très belle Adja. comment vas-tu. ça va très bien Pape Sidi. yaa ngi ci jàmm maa ngi si jàmm ravissante comme d'habitude. merci beaucoup maa yaa ngi cool. maa ngi cool maa ngi lay nuyu ah. macha allah euh, di nuyu Raxu di nuyu Bijou di nuyu ñëpp ñi nga xam ne ñoom la fekk ci plateau bi. di wax déwéneti ah. ngeen baal ma ak baal naa leen yal nañu yàlla boole baal ñu fekk ko at yu bëree bëri. amiin amiin may nuyu aussi euh, suñu invité bi nga xam ne moom la fekk ci plateau bi docteur Ahmed Khalifa Niass. <laughs> am nga ay question pour docteur Ahmed Khalifa <laughs> parce que xale jigéen ñi bu ñu gisee maam xale <laughs> maam ma booleeg moom non non man xam nga lan mooy sama problème boo demee sëy après ba mu yàgg toutes ces questions on va en parler ne vous inquiétez pas Bijou Ngoné ayca Pape Sidi xam nga euh, euh, day neex moom comme ni ma ko waxee à chaque fois ñu koy dalal ci plateau yu mel nii parce que jot euh, moom Euh, bokk na ci ñi nga xamante ne dañuy marqué seen empreinte ci koor gi muy euh, le docteur Ahmed xalifa Niass comme ni nga ko waxee sànq mais euh, ci suñu côté ñuy wax ñun suñu sëriñ suñu xarit dañuy kontaan comme ni nga ko waxee léegi papa balaa ñuy dugg léegi léegi ci li nga xamante ne moom mooy waxtaan bi xamuma nag dañuy Pape Sidi dañuy dugg. waaw xam nga balaa ñuy dugg ci waxtaan bi. Mhm. yéen tamit war ngeen laaj ay questions. waaw ci carré VIP war ngeen a. Euh, am nga lu ngeen bëgg xam ci maam Ahmed Khalifa Niass. Mhm. mës naa ko posé man benn question bu dëgër këcc. Mhm. mais na ñu defee suivi de. Euh, question bi moom moo xaw a metti waaw. moo ma neexul. waaw euh, changé woon na lu bari nag. indi woon na polémique bu bari bari daaw dinaa ko posé tey. posé waat ko comme ça ñu continuer ko. waaw ñu continuer ko à notre manière. ñu continuer ko mais en attendant de faire un petit break et de revenir sur le plateau. ñu fàttali ne tey ku ñuy wax Khalifa Niass moo fi nekk ngir. gën ñoo xamalek njabootu maam alaaji Abdoulaye ñas nga xam ne ci la Maulana Cheikh al Islam alaaji Ibrahima Niass meññee ko ci la maam xalifa meññee ko ak njabootu Léona Niassène yëpp da ngay faral di dégg Sénégal ñu naan murit Tijaan laa yen ñaseen déedéet ñaseen du tarixa ay Tijaan lañu. et vous allez apprendre beaucoup de choses aujourd'hui sur le plateau de la 2STV. Mm-hmm. ci kanam tuuti dañuy dem seeti Habib MVP xool lan ngeen wax lan ngeen bëgg a wax lan moo nekk ci seen xalaat on se retrouve juste après Habib. Habib j'espère que tu es ah Habib boo ñëwul damay dem de ndax bisu pare na. waaw. Euh, mu ngi noonu ba tey ci commentaire yi nga xamante ne euh, moom la ñuy am sur la toile n'est-ce pas Pape Sidi. oui euh, nitu dëgg nee na dafa am question boo xamante ne da ko bëgg a poser le colonel nee na qu'est-ce qui explique. que moi, par exemple, je peux dépasser l'âge pour rejoindre l'armée et voir quelqu'un de plus âgé que moi qui y soit accepté, loolu question la boo xam ne euh, moom def na ko waaye itam euh, à travers YouTube Pansène euh, Touré moom nee na monsieur le colonel comment l'armée nationale prépare-t-il les Jeux olympiques 2026 au Sénégal est-ce qu'on peut attendre à voir est-ce qu'on peut s'attendre à des athlètes qui nous viennent de l'armée donc am na ñooy nga xamante ne moom fi ne dañuy rek euh, di di ziar ni ñi ak di leen euh, ñaanal li nga xamante ne moom mooy kooru jàmm waaye itam di souhaiter une bonne fête d'indépendance euh, ci képp koo xam ne ni sénégalais nga nest pas donc lii nga lii mooy li nga xamante ne moom la ñu mën a jàppandi ci ci ci commentaires yi waaye itam ñiy kontaan ci deux stv à travers ce beau plateau bi nga xamante ne 2STV jox na ko ñi nga xamante ne ñoom ñooy les téléspectateurs. Habib MVP. ayca ba tey Habib MVP reste de l'autre côté. avec mm -hmm. euh, tous les internautes du Sénégal waxtaan wi day tàmbali dañ ko bëggoon a tàmbaleeg politique. Mhm. bu ñu paree ñu door a dem ci ni ñuy xamee suñu jur wu sell wa suñu maam ja mooy njabootu maam El Hadj Abdoulaye Niass mais bala boobu bijou on était en train de parler tout à l'heure de encore plus. Euh, ci atum 2022 bi. am na ñoo xam ne dañu ciy gunge ak ñoo mhm. xam ne dañu cee war gunge. waaw am na ñoo xamante ne Pape Sidi dañ ñu ci war a gunge bokk na ci euh, ñi nga xamante ne ñoom ñooy waa Wave Wave Sénégal ku ne xam na ni euh, wax dëgg yàlla Wave sa xaalis yaay borom donc à partir de demain incha allah après demain yooyu yëpp dinañ gis ñi nga xamante ne ñoom ñooy annonceurs yi mais nag yéen ñi nga xamante ne bëgg ngeen ànd ak ñun aussi ci weer wi nga xamante ne moom mooy weeru koor gi ci encore plus gaaw leen ñu ngi leen di ubbil seen suñu ay loxo ah euh, ngeen ñëw bokk na ci aussi meew mixwell nga xamante ne dinañ ñëw ñoom ah ànd ak ñu nit ci guddi gi. Mm-hmm. Euh, waa suba waa ñu ngi leen di xaar ah euh, bokk na aussi ci coin bi nga xamante ne suñu euh, invité mi ngi koy wax léegi ah ne la ci sa ginnaaw Pape di xam naa ne yow lay gën a jege reer bi ndax par instant di ngay jaabante waaye suba incha allah dinañ gis ki nga xamante ne moom mooy merveille et plaisir bay Mamiko ñoom ñëpp ñu ngi leen di woo au royal aussi Pape Sidi yaa ngi ko gis ci biir plateau bi donc ñeneen ak ñeneen ak ñeneen ñu ngi leen di xaar. ci guddi gi euh, ndax wax dëgg yàlla encore plus nee naa leen pour yéen la Pape Sidi sans plus tarder xam naa dañuy dugg nag ci waxtaan bi ndax sama invité bi wax dëgg yàlla mi ngi commencé la dañu dañu bëgg raxu waaw voilà dañu bëgg tàmbalee waaw jotaayu politique bi mhm. ndax fi mu ne nii moom actualité la waaw actualité du noonu waaw <laughs> ñaa ngi lay déglu waaw te nelaw waaw hmm. nañ leen wax jotaayu politique maam Khalifa su ma leen intéressé déglu leen ko ba pare politique bi du fi jóg d'accord ngeen bañ a d' accord. d' accord naa. waaw ñas loo bëgg bëgg nan dama ne maam xa sa xalifa ñas moomu. Mhm. tey jii la judd. ñaareelu fan ci weeru koor. tey jii ci dëkk bu ñuy wax Sélik ceetu Ndofane Lagem gën a euh, dend ak euh, beneen dëkk mhm. séeréer boo xam ne mi ngi tudd dëkk dëkk bi sa sët kawil déedéet yow xamoo foofu defal ndànk ah déedéet dëkk bi métul ñaari kilomètre ak Ndofane ah waaye ci dëkk bi laa si katurum ne ci kaw goudron bi <laughs> yéen xalaat leen gaaw càkkal kii ah dëkk bi euh, Saabala Ngaar Njaay maam yi wàll yooyu Njaay fa la dëkk waaw Saabala peu importe <laughs> Kër Waali Njaay yéen xamu leen wàndu kuma ngeen lu ko baax ngeen xam ak. <laughs> père kenn xamul te yow fàtte nga. waaw non non mais danaa ko dina fàttaliku li am importance. foofu la juddu. Mhm. juddoo ci ñaareelu fan ci weeru koor. tey jii sama doom di sama doom yi mag di Cheikh Tidiane bi nga xam ne mooy taawi xalifa El Hadj Omar di xalifaam nekk xalifa baayam baayam di xalifa maamam di xalifa. mooy def weer wi bu tolloo ñaari fan mu yendu fa ñu jàng ay kaamil def ay dog ba julli timis nit ñi tasaaroo man sax daan naa ca dem mais tey daf fekk ma am ngànt ndax yéen ñi mhm. ndax mënu a dem ba deer yendoo fan di ñëw di fekkee si lii <clears throat> sama yaram sax moo ma ko dul may mhm. xam nga am eh, yaramu soixante-seize ans ak bu seize ans bokkuñ